mbokk ñu ngi à di nuyu bu di di dalal ci plateau spécial ñu ñëw rek di euh, yi président de la république yëkkati nako euh altiné nous ñu génn di discours bi nga président de la république nous ci dogal nak né élection yi nga la euh, euh, présidentielle 2024 du ci bok mu nekk ay yo ñëpp doon am ay jiixi jaaxa ci ndax président de la république dina bokkam déet kon ngeen dégg ko keroog mu ne moom jël na dogal ne du bokk bu baax léegi nag yéen a ngi euh, suivre réaction yi nga xam ne fii ba bitim réew ni ñaa koy yëkkati di rafetlu yooyu le kaddu fii ba Nations uni sax tey nag ñu bëgg a taataan kaddu ay soxna ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci langue politique bi ñoom lañ dalal kon tey ci suñ plateau fas yéene rek ñëwaat. nu mu gën a yaatoo ci boobule discours du président de la république son excellence Macky Sall kon ñi nga xamne ñom lañ invité ci plateau bi ñom lay présenté ma dale ko sama ndeyjoor ànd ceeg ki nga xamne mom moy euh, Penda Ndaw Penda Ndaw mom mi ngi bokk parti réew mo fay secrétaire général adjoint bokku ba tey ci cellule communication kon Penda ñi ngi lay nuyu di la dalal. ma ngi lay fay bu baax sama sœur Aram. sama doomu bay ma ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu Sénégalais yi ñuy sétane yépp di jiital ci nuyu bi kilifa diiné yi ak kilifa aada yi. di euh, leen déwénati ci tabaski bi ñu joggé di balu ñëpp ak té di leen ko bal di ñaan yalla suñu borom rek euh, jaamu yalla yi ci jaamu yépp ñaan yi ci ñaan yépp yalla nako suñu borom nangu. may nuyu sama sœur yi ma bokkal plateau bi di ñaan rek lepp lo xamanteni dinañ ko wax fi ci plateau bi rek mu nekk lu jariñu Sénégal. di rafetlu bu baax aussi ndéwénal bi nga xamante ni son excellence le président Macky Sall defal na ko Sénégalais yi. ndéwénal bi dinañ ci ñëw ni mu gën a yaatoo ni nga ko waxee rek di wax amin ci say ñaan alors di nuyu ki nga dendal nag moom mooy Louise Coco Diouf. moom AFP Lenec nekk Louise Coco Diouf moom moo fay euh, ci bureau politique bi la bokk troisième vice présidente bu conseil départemental bu Mbour la. Louise Coco Diouf ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Aram di nuyu ñëpp doore ko ci comme ni ko sama naataango waxee ci kilifa diine yi ci dëkk bi que ça soit côté musulman comme côté catholique bàyyiwuma kenn di leen déwénatil ci tabaski bi di ñaan yàlla tabaski reen yàlla na dàq ci tabaski yëpp te moo ciy dàq sax ndax comme ni mu ko waxee li ci topp dafa neex Sénégalais yi dalal xel di la nuyu di nuyu sa directeur di nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi yëpp di leen jaajëfal di ñaan yàlla liñ fi wax yal don doon jàmm ñu commencé ko ci jàmm jéxal ko ci jàmm té mu amal Sénégal yépp njëriñ merci. jërëjëf euh, madame Louise Coco Diouf ya ngi dendal euh, ku bokku ci kër gi docteur Nafissatou Diouf moom euh, APR la fi togal membre task force républicaine waaye nekk dgtds TDS kon docteur Nafissatou ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal sa kër. jërëjëf di kontaan bu baax ñëwaat fii nga xam ne mooy kër gu mag te la nuyu aram euh, di nuyu euh, sama euh, rakk yi ak sama mag yi ma fi fekk di leen ndokkeel ci li nga xam ne moom mooy tedd ñu nekk tamit aram nga may ma ma ndokkeel Ande sama kóllëre ak sama ànd ak moom ki nga suñu parti nekk secrétaire général Alliance pour la République di son excellence monsieur le président de la République aussi monsieur Macky Sall di ko ndokkeel di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal ndax loolu la bëggal Sénégal loolu la firndeel euh, di ko féliciter tamit euh, ci li nga xamante ne nii euh, moom la mës wax te teggiwul yoonam benn yoon waaye itam di beral nuyoo bépp kilifa diine bépp kilifa aada di nuyu nag kilifa kër gi di mosieur Racine di sama frère di nuyu sama collègue sama ex collègue yi fi nekk yëpp. jërëjëf docteur Nafissatou Diouf suma ma ñëwee sama càmmoñ di wéyal ba tey présentation soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci suñu plateau spécial bi sama càmmoñ kon ki ma fi fekk moom mooy Diégui euh, Diop Fall ba tey moom it bokk ci APR moom mooy directrice euh, promotion droit et protection euh, des enfants kon Diégui Diop Fall ñu ngi lay nuy bu baax. alam maa ngi lay fay alhamdulillah alhamdulillah il lazi sadaqana wahdahu wa awrasana al ard natabawu min al jinnati haythu shafani mal ni'mal ajrul amilina Santa Mawar, war sant war jam yépp Santa ñu war ñun wa Sénégal waaye nag sama nuyo, ak sama sargal ak tatagal dama koy teg ci loxo c'est le père de la nation le gardien de la constitution son excellence monsieur le président Macky Sall ba pare mu sama président coalition muy Benno Bokk yakar. président Macky Sall maa ngi lay nuyu di la sargal di la jox sa wàccuwaay di jël nuyoo yëpp di ko teg sa loxo fas yéene xam naa ne dina ma ko jàllaleel may nuyu ñi ma bokkal plateau bi aram ma lay nuyu di rafetlu nag jotaay bi tey ndax nag RTS da ngeen di wane saa su ne quand c'est important man waxoon naa leen tey moom dama leen dajal benn berel nuyoo parce que yene a tax ma wàcc sama kaw lal bii su ma ñëwee tey jàkkaarloo ak yéen. ñu la ci jaajëfal parce que ruubeewu leen jaxasewu leen dëkk bi waxu leen luy taal Sénégal. toujours yéen ngi wax li am l'information est la vraie et c'est très important parce que c'est est un droit constitutionnel mais qui est encadré ngeen respecté ko kon damay rew damay rafetlu su ma jakkalo jàkkaarloog yéen ñi ngeen wane professionnalisme ban sëkk fofu nak dama fay jaajëfal sen directeur général je nomé nomme Racine Talla ak ki nga xamante nak moy mooy Ngari ma di len nuyu yéen ñëpp di len sargal di len jox seen wàccuwaay di wax nak média dafa nek 4e poids ci démocratie nañ ko xam té diko di ko sa saa su ne ñu lay jaajëfal bu baax a baax Adja ki Diop faal ci kàddu yooyu kon damay jàll ci ki nga dendal rek di honorable Aminata euh, Diallo moom mi ngi bokk taxawu moom mooy coordinatrice mouvement fal Khalifa Sall honorable ñu ngi lay dalal di la nuyu. Euh, maa ngi lay fay aram di nuyu ñi ma fi nekkal yépp sunu tata yi ak sunu sœur yi di nuyu téléspectateurs yépp fu ñu nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi. Euh, di wax ñëpp déwénati bal leen ñu àq bal nañ leen yal na yàlla saxal jàmm ci Sénégal macha allah yal na yàlla saxal jàmm ci Sénégal defal ko ñëpp ah li nouvelle bu neex bii ñu am yal na continuer yal na ñëpp bokk ci élection yi comme ça mu gën a neex yal na ñëpp bokk ci élection yi bu ñu beddi kenn bu comme ça ndéwéneel bi gëna neex loolu lañuy gëna xaar ci président de la république. ñi ngi ñëw waxtaanee ko ak yeen ñi nekk ci plateau bi yépp mais ma dem ba tey ci ki nga xam ne moom nga dendal moom nag moom mooy Souka Seck mi ngi bokk parti démocratique sénégalais PDS secrétaire nationale adjointe chargée des organisations syndicales kon bu PDS ba tey nekk ci communication bi kon Souka Seck yow it nuyu nañ la dalal la. maa ngi lay fay euh, ma sœur Aram ndaw de le remercier, de remercier RTS parce que c'est la première fois. plateau est presque def comme RTS mom c'est la première fois ma ñëw sen plateau donc je ngi len ci remercier merci beaucoup bi ngeen ñu joxé opportunité ma fekke plateau di d'abord permettez-moi de nuyu sama co la doyenne Louise euh, notre sœur Nafi et mes sœurs euh, Aminata sama jumelle Euh, Penda Jégi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mais aussi di nuyu waa parti démocratique sénégalais su ma nee waa parti démocratique sénégalais ci weer bi ñu génn muy weeru tabaski permettez-moi ma ndokkeel sama président Abdoulaye Wade ndokkeel sama président Abdoul Karim Meïssa Wade wante ndokkeel waa parti démocratique sénégalais yëpp di leen dëwanati wante di profito occasion bi aussi di massawu Sénégal yi nga xamante ni euh, yëngu-yëngu yi fi am temps yi am na ay xale yoo xamante ni ñàkk nañ leen mu nekk loo xamante ni ñu ngi ci euh, massawu képp koo xamante ni sa famille rek dal na si lool noonu di massawu Sénégal yi nga xamante ni des privés ñu perdre seeni bien publics des Sénégalais yi nga xamante ni seen liggéey ñu ñàkk ko ndax émeute yi fi amoon Euh, di wax aussi mu nekk ko regretter je saisis cette occasion pour euh, condamner ça jusqu'à la dernière énergie euh, terminer nak fi le président Macky Sall di ko féliciter acte hautement solennel bi nga xamanteni mu cadeau bu mu restaurer la démocratie sénégalaise dès lors fi mu évidemment il ne pouvait faire que ça parce que ses prédécesseurs le président Senghor le président Abdou Diouf le président Abdoulaye Wade non, nous ñu démocratie sénégalaise Moi tamit noonu rek la été démocratie sénégalaise Nous pouvons féliciter di féliciter ñi nga la famille politique muy à APR di féliciter aussi waa Benno Yakar mais aussi di féliciter le peuple sénégalais parce que la démocratie sénégalaise peuple bi ñoo ko xeex na la donne a changé donc ñu wax alhamdulilahi rabil alamin jërëjëf ñu lay gërëm di gërëm ñi euh, toog ci plateau bi yëpp ma présenté leen euh, sànq xam sax balaay dara dañuy dem euh, wat cadeau président de la république su ko defee ñu mën ko gëna a ma fàttali né plateau bi wa APR ñi ngi fi AFP PDS réew mi taxawu Sénégal kon ñu fas rek dikkaat ci discours président de la république ni ma ko waxee dañuy dem taataan tuuti ci ay kaddu euh, son excellence Macky Sall. élection yi di ñëw bind naa ko ci livre bi ñu tuddee le Sénégal au cœur Sénégal sama biir xol boo ko gisee di ngeen wax xam ni ne naa mandat 2019, bi mooy nekk sama deuxième et dernier mandat ça ne veut pas dire que aw ma ci droit mais loolu sama décision bopp la te loolu laa jël tey moom laay baamtuwaat. donte nag gis ngeen ay groupement ay nit war nañu Sénégal dem bitim réew yàq deru Sénégal yàq deru président la République dafa bëgg a def ñetteeli mandat dafa bëgg a def lii dafa bëgg a def laa loolu kon war na mën a dakk ndax président ci boppam jàpp na ne li mu bind deux mille dix huit dëgëralaat ko tey loolu taxul maanaam coow yooyu taxul waaye ñawlu naa li nga xamante ne bëgg sa bëgg-bëgg tax na nga dem di jaay sa réew ak di yàq deru sa réew ah nit ki booy wut tam danga ci boole ngor parce que loolu dafa am solo li ci des mooy ñu continuer suñu taxawaay ci réew mi continuer waxtaan ak ndaw ñi parce que avenir u Sénégal ci ndaw ñi la nekk suñu bëggee seen njàng baax suñu bëggee ñu am liggéey am jàppale waruñu taal école yi waruñu taal université yi waruñu yàq li ñu fi liggéey su ñu fi defee ay train def fi ay BRT loo xam ne Afrique yëpp ci bëgg loolu askan bi moo tax ñu def ko du pour président Macky Sall wala keneen wala gouvernement kon war nañu sàmm loolu ñu leen defar parce que alalu réew mi moo ko tabax te dañ ko leb kon loolu dañ ko war a sàmm suñu bëggee ëllëgu gone yi nekk ëllëg bu gën ci loolu laay woo mbokk Sénégal yëpp di leen sant di leen gërëm di leen wax nag bañ a nekk candidat terewul ah ma taxaw nag taxawaayu président la république boo xam ne lépp lu mu laaj ci wàllu ah responsabilité danaa ko doxal ba mu mot sëkk fii ba bës bi terme bi di jeex muy bu ci yàlla àndee ñaari fan ci weeru avril 2024 mu nekkoon lenn ci cadre président de la république altine eh, ñetti fan ci weeru juillet bii ñu génn ñu bari jàpp ne euh, discours bu historique la euh, Penda Ndaw ma ñëw ci yow ma fàttali ne yaa ngi parti réew mi mm-hmm. ñu bari ne nañ discours bu historique la mm-hmm. dégg nañ la sànq nga ne ndéwénal mm-hmm. li ngeen doon xaar ci moom absolument et je pense que lii la sénégalais yépp doon xaar ci moom lii la républicain yépp doon xaar ci moom lii la démocrate yépp doon xaar ci moom te je pense que la manière dont la nouvelle a été accueillie montre à suffisance que Sénégal euh, lu taaru rek la xam n'est pas pour rien que nous ñu au Sénégal ne n'est c'est pas pour rien que nous sommes vitrine de la démocratie sénégalaise Et liñ que le fait en tant que euh, sénégalaise c'est été jii pour relever restaurer la démocratie sénégalaise Nous ñun ñi nga xam dañuy sous région bi di dem ci à chaque fois vu les événements yi fi jaar comment en êtes-vous arrivé là parfois nga am ci kersa parce que Sénégal luñ ko xamee rek moy muy le bon exemple je pense que le président de la République son excellence monsieur Macky Sall restaurer cette fierté là ce fibre patriotique là bi nga xamanteni ñun dañuy gargariser wu ci lolu buñu yakarna ni décision bu mu jël non seulement c'est historique mais sagal na képp kuy sénégalais le discours aussi c'est vrai que nouvelle bi taxna ñu ñu ñu mesurer la portée du discours parce que bo xolé amna na ay violence yu fi jaar yu metti yo xamné Sénégal xamuko ko ma ci profité ci occasion bi rek pour jaale képp ko xamné rek ñàkk nga ci sa bakkan ak parents yi nga xamanteni ni nañ ci sen ay njabot parce que ben bakkan rek Warna tax ñepp taxaw euh, incliné wu devant la mémoire de cette personne bu disparaître waxuma la nak ñuy compter des morts par dizaines yakarna né lolu mom il faut ñu ñu ñu taxaw ci setlu ci parents yi jëlaat ci seen ay responsabilité ñaaxaat ci ndaw ñi aussi parce que opinion politique nit mën na ko manifester mais pas ci façon bi nga xam ne ñun gis nañ ko fi fan yu weesu Sénégal xamul loolu donc je pense que ñu condamné ko mais aussi ñaanal ñi fi jugee mais aussi sant yàlla te ñu yaakaar ne rek euh, décision historique bii nii dina apaiser bu baax tension politique bi ñu nemmeeku boo xam ne nii gis nañ ne rien ne le justifie dara justifié wul violence te aussi euh, ñi nga xamné ne nañ ci parce que aussi am na ñoo xamante ni tey nañ sen xaliss banque ken xamul fuñu jëlé sen ay moyens ken xamul fuñu ko nar fayé fayee ëllëg te yàqule nañ ci luddul dul jeex donc ñu ñu ñaawlu yooyu nonu parce que aussi euh, politique lu noble la te ken duko def lo xamanteni da fay ñaawal da fay gakkal parce que bo sété ñun euh, politique yi matuñu un pour cent ci population sénégalaise donc man mënuma d'accord ñu jël en otage tout un pays li ma gis mooy politique yi ñoom ñoo wane war la voix. la voix, ñoom ñoo war a wane yoon bi ñëpp topp si mais yoon ban façon lañ koy et je pense que le président Macky Sall vient de montrer quand même que les, la politique elle est noble que politique ay valeur moo koy def La république kenn waru ko monnaye ak dara suñu bëgg-bëgg wax na ko ci biir kàddoom c'est mu am solo c'est-à-dire booy ut sax na nekk ngor na ko ngor c'est très important parce que outil bi ak amin bi fay tax teyewin bi di gëna rafet donc ñu ci sargal bu mesurer aussi la portée quand même de cette décision parce que parce que nous sommes des libéraux donc amna en tant que valeur libérale revendiquer et je pense que en tant que libéral déjà en tant que sénégalaise mais aussi

mais boo c'est euh, maa président Macky Sall vraiment ci acte de grandeur pour mon def parce que Sénégal yi yëpp majeure partie bi loolu lañ le malgré que nous ne du droit comme nous le mais bëgg Sénégal ak bëgg a ak bëgg dal moo tax mu renoncé loolu une chose rare mais loolu yëpp dafay dugaat ci bilan parce que toujours dama koy wax le président Sall je suis de l'AFP je suis pas APA, mais je suis dans les bien de am loo xam pour man mayu le la ci parce que presque les lu muy doxal il est premier premier lii moo ko njëkk a def moo ko njëkk def mu def la c'est au niveau international D'autres fay ba a yow Médine ça va rester dans les archives président c'est la première fois au Sénégal un président sortant di kii ay élection mosu fi am ndax euh, munoon na forcé kenn du ci mën dara xëy na coow li moo naroon a bëri wala qui. mais loolu it lu ko indi xam dama ciy féliciter sama secrétaire général di sama papa Moustapha Niass parce que le dialogue national it joué na ci ndax dialogue national bi président dafa wote kaay leen ñu waxtaan ña wuyu ji wuy ji nañ ndax ku la wo bu la joxul dina la may wala mu wax la te dialogue bi gis ngeen ni sur 16 points on a été d'accord sur 12 donc dialogue bi it am na loo xam ne na ci pour woyofal xol yi

AFP la guerre. nous avons ko l'alliance des alliances parce que APR c'est l'alliance pour la République AFP c'est l'alliance des forces de progrès donc nous avons dit que c'était une alliance des alliances donc nous avons ñu nekkoon nous nekk ci ba bataille. donc président il dama ko félicité bu baax a comme ni ngeen ko la politique il faut nous ñu il ak dal yàkkamti baaxul man mun naa parce que je suis je suis à l'AFP depuis euh, l'appel du 16 juin 99 nekk fa depuis 2000 am na loo xam ne politique bi waruñu ko jaral surtout xale yi laay waxal nañu ànd ak dal ak tey parce que dafa am loo xam ne nit ki la waxoon ndax vaar yi moo ko indi de ni ñàkk fayda weesuwul nit làkk ay doomam ci ginnaaw woola ci biti ne la demal yàq yi pour man fekk ay doomam a ngi Canada ak feneen ñàkk fayda weesuwu ko kooku tey bu leen woowee ngeen jóg donc il faut que yi actions pour politique du président Macky Sall na parce que nous c'était le président Moustapha Niass et le président Ousmane Tanor vraiment je salue sa mémoire parce que ñoo le département de Mbour de vraiment nous ñu ay terrain politique ils ont occupé des postes de haut niveau am une carte de visite au niveau international donc lolu yëpp dafa bax ci boy doog ñëw nga am ñooy et puis mom ci bopam son cursus personnel parce que le président Macky Sall li occupé ci Sénégal Il y a aucun président qui l'a occupé et Boudé amna il a été ministre de l'intérieur c'était c'est un ministère stratégique il a été premier ministre président de l'Assemblée nationale président de la République defe naa président yi ko am bëriwul comme waxtaan bi day kii ma ah, yem fii comme ça sama naataango yi mun na effectivement mm. docteur Nafissatou Diouf euh, dinaa la laaj nag comme APR nga bokk naka ngeen dundee discours bi ndax ñu bëri ci yéen bëggoon nañ euh, président de la république samp ndëndam waaye moom mu jàpp ne euh, du bokk bëggul bokk décision boobu la jël ngeen dundee ko nan yéen waa APR yow Nafissatou Diouf jërëjëf soxna Aram di santati yàlla bu baax Euh, ginnaaw bi ma sante yàlla bu baax di sant yàlla euh, ginnaaw bu ñu amee njiit bu tudd président Macky Sall mu nàmpatal ñu euh, ci bëgg réew mu nampatal ñu ci bëgg Sénégal mu nampatal ñu ci li nga xamante ne nii keroog wax na ko ci discours am dafa wax code d'honneur am na sax ku ma dendeloon bi muy wax discours mu ne ma waa lan mooy code d'honneur ci wolof ma ne ko mooy loo xamante ne nit ki dana ko jombal boppam jombal boppam moy lan moy euh je vais même pas dire nit mais une partie de l'opinion dañ leen manipuler won ba nga xamante ne nii euh, dañ doon euh, maanaam président nan moom moo ne woon euh, dafay présenté waat candidature am may wax né président Ken mënul génn ben extrait bo xamante ne nii dafa ne woon dafay présenté en 2024 je mets au défi quiconque nak nous avons, euh, personnellement en tant que militante pour ma effectivement euh, mu bidigewaat un autre mandat parce que la constitution bi may mais ce que wax dafa am solo ba tax na euh, communiqué en tant que task force républicaine Nous sommes contents décision la décision que le président a une décision historique à plus d'un titre sans que nous ne wax un président en exercice qui va euh, organiser des élections sans pour autant participer à ces élections mais attention faut voir aussi le am solo ci discours bi mu abandonner abandonné dé de ndax dina top li nga lima mom moy en tant que président je vais veiller à ce que les élections se passent de la meilleure des manières et je pense que d'ailleurs dans ci communiqué du conseil des ministres nous gis nañu ñaari disposition yoo xamante euh, dialogue bi la appliqué, euh, nous appliquer ñu féliciter itam ci li nga esprit républicain bi mu a am mooy lan à la veille d'élection euh, ñu organiser lu ñu dialogue national manam c'est vrai sans anticiper nous avons naa ne dina nekk benn poñ boo xam ci mais ce ma ci bëgg dire, mooy euh, euh, li li ëpp solo ci discours à part bien sûr euh, li mu annoncé li ci ëpp solo mooy li mu wax mu ne xam nga aram sànq sama sœur sama dafa wax lu am solo dafa joxe ci CV président fi mu jaar waaye dafa aussi lu am solo muy dafa directeur général président foofu la commencé directeur général Petrosen donc mu nek aussi lo xamantene ni lolou lan lay findel moy président quand même dafa dafa am jaar-jaar bi aussi lan lay moy euh dafa dafa xam manam dafa gravir les échelons bi mu gravir les échelons euh mu ci euh mu ci xam manam dako jang lutax may wax ci lolou ndax contexte bi ñu président dafa jël euh, la patrie avant le parti Si nous Sénégal dafa dans un contexte extrêmement important bientôt on fera partie des pays producteurs de pétrole mais aussi dans ces pays là la convoitise mais elle est intense pour ne pas dire elle est violente de l'extérieur comme de l'intérieur parce que les forces occultes dont on parle mais ça existe Ça, c'est ce xam nga euh, booy xeex ndax opinion booy manifester ndax opinion ça c'est entouré par la constitution waaye xeex ndax opinion am na fu mu yem boo demee bay saccagé sànq man ak samay euh, euh, collègues au niveau de TDS avec mes collaborateurs dañu dem doon massaw def une visite de courtoisie au CECI mais ba ñu demee ba gis yàq-yàq yi je me suis posé des questions je me suis dit mais il faut effectivement que ñu am un arbitre qui s'appelle le président Macky Sall pour nous veiller sur le bien qu'on appelle le Sénégal donc décision bi à la limite c'est vraiment pour veiller ci li nga le bien qui s'appelle le Sénégal alors euh, madame Diégui Diop Fall su ma ñëwee ci yow ba euh, laaj bi di Le euh, président de la République a décision bi nga xam ne jël na du bokk ci discours am xam dina euh, surprendre ndax da nga bokkoon ci ñi nga xamné ils étaient surpris ou pas. Euh, je sais pas ndax amna ño ñoo tay suma tey su leen waxee président Macky Sall xamoon naa ne du nekk candidat amna ñu koy weddi waye amna ño ñoo suma ko waxé fi ci télé bi dinañ ni djégi waxon nako waye amna lo na loo ni itam dama ko gëmon moy man gisuma ko xamante man gënaloon na sama candidat muy président Macky Sall c'était mon choix en tant que citoyenne, en tant que militante, j'ai une envie, jusqu'à présent, et même pour ça, man bu doon sama président Macky Sall mooy nekkaat sama président en 2024 ñaari sentiment mon moment animé de mélancolie et de fierté lu mélancolie toute séparation elle est douloureuse même si elle est souhaitée ça je l'assume que man su ma au Sénégal mon président Macky Sall mon ex sama président je naa un pincement au cœur parce que lu tax ma taxoon di ko défendre mën naa teg point par point lu tax ma bëgg président nekkoon ko lu tax ma bëggoon mu àggali beaucoup de chantiers yoo xamante ne tegoon na ko place waaye ma am na beneen sentiment de fierté aram tey jii dama bëggoon sol ay dibe yu ngande ngande sama doom moo ma ko tere parce que tey dama am fierté wax ni man pulaar la pël laa ñuy tere ne da ko bandum tey dama am fierté fëgg sama dina taxaw ni ne ko bandum tay dama am fierté taxaw ni président Macky Sall ànd ak Tadjani la ñu ngëm dama am fierté taxaw wax y a un code d'honneur chez les Peuls qu'on appelle Harimedi Diedi di min pirtata muy les sept serments président Macky Sall daf ko tek mu wax ko nak ci biir discours tek luy ngor aram amna droit bëgg président Macky Sall nekk candidat te ma défendre ko sur toute la ligne ma jaaree ko sur son bilan matériel comme sur son bilan immatériel ma je ko mën a lu tax par rapport à une vision bu mu au Sénégal jusqu'en 2035 mu mën continuer mën ko wax ba émission bi jeex tac. mën la wax par rapport au PSE mën la wax par rapport au PAP avons ci PAP 2 avons ci PAP 2A ba ñu jëm ci PAP 3 le capital humain il faut que l'individu que ma soeur, wax ko en tant que libéral. mais moom mu tontu la ci benn phrase. mais ma pareegu ma. Mhm. moom loolu daf ko engagé woon -hmm. personnellement man je ma engagé man. Mhm. juriste d'abord qu'est-ce que la loi dit la loi permettait à moi, mon président, de briguer un second quinquennat. Mais le Sénégal dépasse ma personne léegi nag. Mhm. mu wan ñu ni ñun ñëpp ku ñun. Mhm. ta personne le Sénégal est au-dessus de nos personnes. C'est moo tax aw ma benn tristesse bu nit ñi war a lire sama bët parce que bi may suis ak moi, man sais que ni man su ko am ba am 40 ans aram mbaa nga am 50 ans tout ce que si pour man la la dese moo gën ndaw que la nga pour nos enfants, moi, je me battais pour l'avenir de ce pays. Et par conviction, suis jàpp ni mom. Je suis ma que je Je dama wax suis Je Je dama je comme je suis qu'il a le choix dama wax il avait le choix il avait le choix il avait le choix moom mu bind mbaa mu wax ba pare mu taxaw mu ni yoon may na wala avenir du Sénégal parce que wax na ni personne le Sénégal est au-dessus de sa personne tay mënoon a teg boobu argument te du ko meuna teggi aram man mako wax waye nak mu woné wat encore une autre facette des politiques dama ni cuune du politique ma ciipi du politique quelqu'un qui est imbu de sa personne du politique politique xam nga kan moo ko quel un don de soi moy tay jéegi fi tok ñi fi sëyul bëriwul wala ñu si bëri ñu ngi sëy wàcc seen i borom kër mbaa ñu wàcc seen i doom mbaa ñu wàcc seeni yaay mbaa ñu tëj seen kër ñëw toog fii pour wax li ñor askan bi pour wax li ñor Sénégal bu ñu jógee foofu terrain bu ko laajee dañuy sol pantalon takk ay basket nekk ci terrain bi bu xëy jotee huit ñoo ñooy jiitu ci bureau nekk ak sunu ay liggéey Nafisato ngi nii bureau la jógee ñëw fii bu ñu paree delluwaat ci kër yi. Quand on est politique on ne def da noble Je dama terminer par une chose on est une républicaine je n'accepterai jamais qu'on dise que la démocratie a été restaurée par le discours du président Macky Sall non n'est pas parce qu'il a décidé de ne plus être candidat que la démocratie est restaurée non non la démocratie est restaurée parce que xam président dafa les institutions de mon pays vont demeurer fortes Quand on menacé la démocratie de ce pays est-ce que c'est parce que nous, on voulait que le président soit candidat Qu'est-ce qui menaçait la démocratie de ce pays Comment mooy je suis battu, je suis battu, je suis ni par force day jàll instrumentaliser ay xale yu tuuti ni suis leen dëkk c'est permis wala ñu cons woo la ñu la kaay je suis justice nga ni mortal combat ngay def nga pare ni almet je suis da ngay taal dëkk bi te nga xëyee doon dem di def lu la neex gudd tabaski la woon nga wacc sa ñaari jéeg sa biir kër sol capuchon romb ay gendarme def lu la neex xëy ñu convoqué nga demee je suis bi nañu wax wax ji te ñu ñame ko aram dama la démocratie Sénégal du président Macky Sall mom moko menacé du parce que dafa bu brigué mandat du parce que mom moy menace encore démocratie Sénégal ce qui menace la démocratie de ce pays c'est l'apanage de la pensée unique qu'on veut nous imposer Je du dox ma terminer tour de table bi djegi euh, ci euh, discours bi ba président de la république waaw xamna naa yaa ci biir <laughs> waaye jeexagul jeexagul ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ngi ñëw ñu jeexal tour de table bi rek ci discours bi parce que duggaguñ ci biir ñi ngi ci discours bi <laughs> honorable Aminata Diallo <laughs> taxawu Sénégal euh, ngeen seetaan discours président de la république taxawu Sénégal yéen a ngi won tamit ci dialogue national bi yan ak yan nopp ngeen doon dégloo discours président de la république ak lan ngeen dégg waa am na solo tey sénégalais yi comprendre nañu tey li tax ay responsable politique bàyyi seen bopp dem na nañu dem toog dialogue ngir Sénégal ñi fa toogoon nag yàlla sedd na ni tey ne ñooñu duñu cuune bu ñu nekkoon cuune kon duñu fa toog te nag nañu waxante dëgg te dee aram dialogue bi nag lii bokk na ci décision président bii am na peut-être ñi mu fa toogaloon ak mu woote mu xam ne ne ñoom Khalifa Sall ak ñeneen ak ñeneen nekk ay opposant ñu tëj ko génne ko mairie Dakar yaayam dee ci dégg nga de xam nga loolu metti na mais terewul ba président de la république wootee ne ñu jaloge mu bàyyi naqaram te xam ne moom amul solo xam nga lan moo am solo notre pays ndax na ñun war nañu jomb lu baree bari xam nga jomb ak. Euh, ragal ragal bokkul de. jomb mooy loo xam ne ni kenn sañu ko di nga seet sa waaso seet fi nga jóge seet ñun ñëpp fu ñu jóge ndax ñun dañoo am histoire dañ fee am ay ñoom lajjoor am fi ñoom maam ndate am fi ñeneen ak ñeneen am na loo xam ne sañu ñu ko woon metti woon na ba lajjoor di taxaw naan raay bi du fi taxaw peut-être que nit ñi dégguñu ko fa mu doon waxee ba ñoom alburi di taxaw di bañ dafa am lu tax ndax bu ñu seetoon ñoom rek ne ay roi lañu am nañu lépp am nañu géwél am nañu lépp am na fu ñu toll waaye seetuñu loolu dañoo seetoon seen réew seet ëllëgu seen réew kon Khalifa Sall ba muy dem ci it di ànd ak ay PDS ak ñeneen loolu la seetoon réewam bàyyi naqaram ne sama naqar amul njëriñ te ànd ak naqar amul njëriñ parce que Sénégal moo ñu tax a jóg kon nag ñi doon wax yëpp ne dialogue bi lii la ak lii la am nañ gàcce nañu ami beneen débat dialogue bi lii moo taxoon ñu dem bii benn la te jeexagul dina am yenen ak yenen ndax Khalifa day doon candidat kari wad day doon candidat ñaan nañ yalla Ousmane Sonko mu nekk candidat keneen ak keneen nekk candidat ñu wone ne fi senegal la ku ñeme na nga dem parce que élection la bu libre ak transparent kon décision président président li ñepp togon tit japp ne suñu réew day tak jël na la bonne décision te waru mënul won jël benen nak ndax 2012 2011 fi lañu fekk ñun ñëpp ñoo nekkoon di xeex ci mbedd mi kenn jàppuñu amoon nañu limite ñun lakk nañ ba taay waaye amoon nañu limite nag aram sañoon nañ def lu ne waaye ñun maison du parti lañ nekkoon jàkkaarloog euh, kii euh, nu mu tudd euh, kii social te musuñu ko laal parce que xam nañ ne foofu suñu avenir a fa nekk xam nañ ne ñu liggéey démb ak barki démb seen lépp a fa nekk kon laaluñu ko xamoon nañ ne même ay bus sax Ousmane Tanor Dieng daf ñu daan wax ak ñom khalifa ne leen gis nga nit da ngay rester républicain nga xam li nga wara def ak li nga warta def def nañ lu ken te kenn musuñoo laal musu ñoo japp te ñun ñoo nekkon ci talibi ñoo daan def lu nekk parce que dafa am lo xamé ni mo war ak lo xamé warut mais lolu yëpp expérience politique mo koy def aram expérience politique dafa am dafa am solo école du parti dafa am solo ñun dañoo juddu am nekk ay xalé di commencer di ramper nek ci pépinière parti socialiste muy muy pionnier nga xamné ni fofu da ngay def éducation populaire kon dafa am luñ lay Jangal, tagatal la ko te loolu ci président Senghor dañ ko jëlé kon président waa euh, président euh, Macky Sall munu won def lénen parce que man ma ngi fàttaliku ba mu gaddo matlam. di dem place de l'Obélisque nan non au troisième mandat kon ka waxon non au troisième mandat loolu yeb mu ngi fi te xamoon na ni mom juddu 1961 mënut def lénen kon il a pris la bonne décision tey image du Sénégal benen bu mu amone sax à l'extérieur tey restauré nako. am na ci solo moom dugg na dans l'histoire te loolu am na solo li des nag mooy lii mu def mu gën ci avancé mu gën a rafet parce que rafet na ba pare te lu moom mënta def leneen kon tey wane na ni aussi dialogue am na solo te ñun nag quand ñun suñu ay responsable mënuñu def leneen ñun bu ñu juddoo dañoo gis Ablaye Wade te ku xool président Wade foo mu jógee ci 1974 ba egsi ba 93 bañ koy gis muy dugg ci gouvernement Diouf kon nga xam ne ni am na expérience bu mu yóbbu ndax au début xex la ay lakk ak ak mais ba mu demee ba xamné ni dialogue mooy indi dialogue moy tax ñu def des élections libres et transparentes ñëw na dugute bobu Khalifa Sall mu ngi ci biir gouvernement bi kon Khalifa Sall mënu won def lenen lu dul dem waxtaanee Sénégal parce que lool la ko sengor jàngaloon lool la ko Abdou Diouf lége woon mooy nañu waxtaanee réew mi toujours bu demee ba metti ñu waxtaan te gis nañ ne waxtaan amna lu mu jur kon nag président Macky Sall loolu ñu ngi ko ci féliciter diko wax nak na continuer ci ligne bi na ci gën a rafet nag na continuer gën a rafet ñu am élection libre et transparente ñun ñëpp ñu delloo delloowaat suñu ay xel te xam ne suñu bopp ñun kese amul njëriñ ñun kese ñun kese ñoon ñooy kan dafa am ñu nekk suñu ginnaaw Sénégal moo nekk suñu ginnaaw du ñu defar Sénégal di ko yàq wala di bokk ci ñi koy yàq Dakar tey Barthélemy Dias mooy maire kon bu ñu yàqee dakaar mu nekk maire ñun ñëpp ciy ñaaw parce que dañoo bëgg dakaar rafet dañoo bëgg Kolda rafet dañoo bëgg Saint-Louis rafet dafa am ay limite nañu yem ci limite ya te politique da am limite expérience politique nag dafa am arab loolu nak duñ ko bañ am na ñoo xam amuñu expérience mais au fur et à mesure dinañ ko am mais ñun ñep nañu am mesure nañ def ndank nak président da xamné ni ñëpp a koy xol ñëpp koy gis ni mu rafetee ni nako continuer gëna rafet ah ñu dem ba élection libre et transparente ñëpp bokk. dégg nañ la euh, damay jeexalee tour de table bi ak ki nga xam ne moom mooy Souka parti démocratique sénégalais. Je ngi ko doon présenté sank yéen di ngi won ci dialogue bi tay euh, dégg nañ sank soxna Aminata nee euh, discours bi bokk na ci euh, conclusion dialogue bi yéen naka ngeen ko jàngatee yéen parti démocratique sénégalais. voilà dañuy féliciter tous les acteurs qui ont pris part au dialogue parce que même cadeau bi ñuy wax du président Macky Sall évidemment c'est la suite logique du dialogue donc ñuy féliciter acteurs je rappeler les sénégalais que le parti démocratique sénégalais ADM ADNM, dialogue nous sommes un parti de dialogue depuis sa création président Ouad, même si nous opposant opposition il a toujours œuvré pour le dialogue au temps du président Senghor du président Abdou Diouf ba chef d'État donc ñuy le dialogue le euh, rafetlu aussi les conclusions yi nga xamanteni mo nek fruit dialogue bi parce que am 12 12 points d'accord et des euh, points euh, non accord de désaccord ak yoo xamante ne le ko mais dinañ ci rafet njort parce que continuité day am donc ñuy rafetlu aussi résolution yi nga xamanteni mom lañ ci gis ba tay communiqué bi génn tay amna ñaari points yo xamanteni le fruit dialogue bi la Sénégal dialogue la xam te on ne peut pas aller de l'avant tant que li ñu bokk ndaxte réew mi ñoo ko bokk dañ koy pencoo waxtaane ko li ñu bokk te dialogue aussi moo ñuy permettre aussi ñu renforcer suñu démocratie parce que bu problème amee ñaari nit wala ay nit euh, xaw a tout il faut ñu waxtaan suñu waxtaanee solution dina am euh, di euh, condamner aussi ou bien di ñaawlu ñi nga xamante ni peut-être dañu jël dialogue bi tudd ay mots yoo xamante ni mënoon na ñàkk ay deal ay lobbying ay yu kenn xamul mais dialogue bi ñu euh, gis ñu génn si mais ana deal bi ana ana lobbying bi ana leneen leneen ak leneen li ñu doon wax liñ ci jàng rek mooy manque d'expérience et de formation politique parce que les partis yi nga xamante ñoo toog fii nii autour de la table ku déglu kenn par kenn mu wax rek da ngay lire ci euh, intervention que kii nii euh, est sorti d'une bonne école parce que suñu parti dafa am D'un xam ne dañ ko fonk muy la formation politique ma sœur honorable Aminata wax na parti dañuy former jeunes yi ñun PDS bala nga am benn responsabilité da ngay dem UJTL ci yi man mi fala laa jógee keneen ak keneen nangam ak nangam Lolo moi tax tey booy def politique nga xam ban taxawaay nga war taxaw ban position nga wara euh, nga wara euh, positionné mais bu ñu ci période boo xamante des zones d'ombre la dafa am nga war ci taxaw avec une position républicaine li nga xamanteni aussi gis nañ ko temps yi euh, une partie des sénégalais bëgg nangu sénégalais yi euh, bëgg leen yóbbu ci la pensée unique di traverser la réalité lolu dialogue bi wan na sénégalais yi ñu ubbi seeni bët parce que bu dul dialogue bi ni peut-être ñom dinañ continuer di nax askan bi ci lo xamanteni ay contre vérité la alors que li nga xamanteni moy la réalité politique donc ce dialogue a changé la donne il faudrait qu'on change de paradigme à tous les niveaux changer de paradigme à tous les niveaux je veux dire par rapport euh, sur le plan communicationnel moi je ne peux pas comprendre un responsable politique am ben posture d'aspirer à gouverner ce pays di am ay euh, euh, discours virulent ou bien des discours va en guerre di appeler à l'insurrection ou bien di wax yenn yo xamanteni moy tax tay doomu sénégalais tay ñu ñak ci seeni bakken wala yenn sénégalais seen bërëbu kay ñu ñak ko wala yenn sénégalais tay ñu ñak seen liggéey notre économie euh, euh, est à terre par rapport si je prends le secteur de l'économie euh, informelle bi problème bi amé ces émeutes là ñaata sénégalais ñoo pas amuñu dépenses te waral lool noonu ñoom kër yi ñoom ils ne sont pas euh, ci situation boobu non président mi ngi koy wax ci discours bi mi c'est le Sénégalais qui se lève tôt et qui travaille dur qui a été plus impacté. loolu lay wax foofu loolu lay wax man loolu moo metti parce que xejna ñun suñu genre yi nga xam ay fonctionnaires lañu machallah on n'a pas ce problème là mais sénégalais yi nga xamante ci catégorie bobu lañu bok ñom ñoo impacté wu. té ñun ñun ñu dañu bëgg jité sénégalais yoy non il faut que nit ñi ñu am ben amour ci son prochain pour yenn yi buñ koy def ñu peser conséquences yi yenn yi buñ koy def ñu peser aussi réew mi fi nga xamantene mom lañ ko yóbbu paré paré par rapport à l'éducation comment on peut aller vers l'émergence yo mom moom ah, kat nga. je suis enseignante je suis syndicaliste. fonk bob sonal na la soxal na la sax lay wax. te mu si ñëwaat la première fois du du Sénégal. Mhm. si suñu histoire ñu gis grève bu né am na fi. lu né am na fi mais dem ba université di euh, euh, lak ay euh, archives franchement c'est trop Moi, moi, li nga xamante c'est le sommet quoi mm-hmm. loolu nak war na tax ñu conscientiser les jeunes ñi nga xamante ñom ñom lañuy ñuy ci rue yi ñoom la ci yenn kii di len exposer mais sen avenir lañuy hypothéquer mm-hmm. université Cheikh Anta Diop wala les universités tay buñ ko yà wala ñu yàq les archives

xëy na suufee ci ay at ci plateau bi bokk ci jeunesse parti réew may dégg sax li la ñu lay togné caatu euh, réew mi ban témoignage nga mëna a def ci cette nécessaire formation au sein des partis je pense que lolu il faut que parti yépp retourner à cette orthodoxie bobu noonu parce que liñ naan lo jangul rek mëno am taxaway bu nu mel ñun au réew yalla dafa def sutura aussi que comme nim ko waxé pour le JTL nous on a la coordination des élèves et étudiants de réew d'abord képp kuy élève et étudiant bëgg a militer dans le parti amener une bonne formation pour les dédier. on a aussi la formation du parti avec le secrétaire national chargé de la formation au niveau de la jeunesse également nous incitons tous les jeunes man exemple là j'ai fait toutes les formations Il y a une fondation allemande yi am Sénégal et au niveau international Il ma defee bu Allemagne j'ai fait l'Afrique du Sud entre autres parce que nous avons un leader qui il mise moi le président Idrissa Seck

Eh, ken tagatul la ci benn métier ken tagatul la ci benn xam-xam te politique bu ñu yaakaaree ne rek da ngay ñew rek ñaaw lamagne wala nga mëna wax wax bu ñagas wala ñu lay jappé caisse de résonance wala ñu lay jappé xulo kat politique du lolu politique da ngay ñew nga def proposition indi ay argument indi offre politique bu valable mais nak aussi ku ci nekk aussi am nga responsabilité ci leader bi ngay tan bo fi tané leader bo xamanteni ni lu wax ji fu mu ñaawé mom la

j'étais la secrétaire nationale à la jeunesse féminine avec les frères et sœurs du parti dañu les ñi nga coalition 2019 ñu dañuy dañuy président Idrissa dafa di xuluk ñun ce qui nous a dit ne brûlez pas ce pays man soxlawuma li di dem remplacer parce que damay ray ay nit wala ndax euh, marcher sous des cadavres comme le président Wade tey jii bu ñu wala mu incité ñu à la violence amana xëy na du ma toog fii tey di wax ak donc je pense que clairvoyance ou leader éducation ou leader euh, taxawaayu leader dayo leader aussi dafa am solo ci li nga xamante ni moy servir d'exemple à cette jeunesse là. tey jii ni jeune yu bëri ma ma wax ko. amuñu amuñu majorité pour comprendre même les enjeux du moment. da ngay gis jeune boo xamante ni koy talal micro sax du xam mom lan moko ko tax ci mbedd mi amna ñoo ni mais dañu japp na ñom sen avenir ci mbedd mi lay jagee parce que ki fi nek bu fi jugee keneen ñom sen lepp da fay bax ce qui n'est pas vrai mais instrumentalisation bi nga xamanteni ni sama sœur bi mi ngi koy wax sànq mais loolu dafa atteindre des proportions yo xamanteni ni quand tu discutes avec les jeunes mais dangay xamné le mal est très profond dem nañ ba gëm né sen euh, ñak liguey bi sen ñak formation bi sen ñak perspective bi ben, benn doomu adam moko waral te bu fi jógee lépp rek la ce qui n'est pas vrai moo il faut ñu delluwaat ci formation mais delluwaat aussi ci kër yi la famille c'est la cellule de base de la société je pense que Diegui en tant que directrice moom def na ci liguey bu bëri <laughs> euh, te aussi ñu ngi saluer liguey bobu nonu gis nga euh, niñ naan xalé yi il faut ñu delluwaat ci yaraat au delà des partis politiques parti politique aussi dañuy ñëw recueillir li nga xamné mom mo nekk ci famille ñom ñu ñëw adhérer en tant que soit euh, euh, des jeunes de 18 euh, à 35 ans entre autres mais fay fekk aussi amna lu lu lu jitu ci kër yi amna lo xamanteni buñ la ci yaré do tok ci télé bu mukk di saaga doo fu ñuy tojé ñun on a été syndicaliste à l'université man j'ai fait le syndicalisme université j'ai été délégué dès la première année mais nous, suñu xel mosul traversé si suñu bopp yi ñuy dem naan dañuy lakk biu wala da ngay man je me suis demandé est-ce que ay a ñoo def loolu parce que étudiant bu normal doo dem taal foo xamante ni yow da nga fay soxlawaat tey jii nii archive ñi ko am fële ne la ñi fa am seen mémoire yi ah, la faculté des lettres fan la ñu jëlee ci seen mémoire yooyu ñu war a soutenir ñi nga xam ne dañu inscrire woon aj ko fi dem bitim wala ñu dem ci seen yeneen liggéey bu ñu ñëwaatee fan la ñu jëm donc il y de choses yoo Euh, pardon autant de choses je pense qu'il faut nous ñu dellu la sensibilisation je pense que le président Macky Sall effectivement par rapport au discours il bi que qu'il euh, yooyu nous dinañ ko topp xool ñan ñooy commanditaires ñan ñoo def ñan ñoo deflu yooyu yëpp am solo mais il faut aussi nous démarrer, ah ci lu gën sori sensibiliser parce que aussi cette jeunesse là c'est une bombe la jeunesse c'est une bombe si elle n'est pas bien gérée je pense que aussi amna Diego yu ci président Macky Sall doog def parce que man mënuma nekk nii liste li may wax Sénégal moy il faut ñu ñuy tam di auto congratuler di waxal nit ki bax baxam di magnifier nit ki lim fu def parce que aussi ñu né en douze ans le président Macky Sall deful dara lool buñ ko waxé buñu yabo sax ñun ñu baye politique xamné ne nous sommes pas sérieux parce que def na li mën def na li nga xamanteni mom moy gis-gisam te lim fi def aussi c'est à magnifier comme le président Idrissa Seck dit rek c'est magnifique maintenant nak li ñu war a rafetlu bu ñu ginnaaw bu ñu rafetloo rafetloo bilan président Macky Sall rafetlu taxawaay bi nga xamante ni taxawaay bu républicain mais aussi il faut ñu taxa rafetlu taxawaayu président Idrissa Seck xam nga lu tax 2019 bi Covid amé bi ñu woté président euh, Idrissa faté bopam ne servir demeure pour lui la station la plus élevée de la seigneurie ñepp dañu taxaw fi da fay diil ñii ne dafa jeexal xaalis ñii ne dafa bëgg défaru euh, defaruwaat entre autres alors que kii gagne des millions de l'heure mais terewul Sénégal moo ñor parce que daf ne booy servir ce rêve. du xaar doo xaar ba président de la République mais à tous les niveaux nga koy defee mu woote waat dialogue bi kii wax na ko dialogue bi li mais li mu dénoué dafa bëri il faut ñu nangu ko parce que nous sommes un pays de dialogue mm-hmm. dinaa ci ñëwaat dama bëgg rek ci ponk boobu nga xam ne ñu ngi ko doon laal te am solo lool ci wàllu formation wàllu ndaw ñi euh, jéegi rappeler ne yow yow yaay directrice promotion droit et protection des enfants nga toogee fi casquette boobu waaye toogee fi tamit militante APR tey buñ ne xale yi war nañ leen a former war nañ leen a tàggat war nañ leen a aar yéen lan lañ mën a xaar ci yéen institution bi d'accord mais aussi parti bi waaw mën naa njëkkee sax si parti bi parce que c'est un réel plaisir pour man ma toog fii entouré de libéral ndax dafa am lu ma gëm <laughs> libéral ba pare. fi mu ne moom pas leen di coloniser parce que moi je suis libéral jusqu'aux os. et de socialiste. Il y a un moment j'avais l'habitude de dire que j'ai choisi le digne héritier du président Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade dafa pare man ma am un choix. am un choix parmi les dignes héritiers du président Abdoulaye Wade kan laay àndal moo Moi, ma choisi le président Macky Sall idéologie dafa baax ci politique xëy rek jóg ñu damay wax ci askan bi fooy waxee nooy waxee li ñu wax léegi dëgg la loo jàngul doo ko tari UJTL la ñu commencer. fa laay commencé jóge foofu yéeg ci cadre yi te balaa may àgg foofu amul formation bu ma deful ci àdduna Penda wax na ko léegi ànd fondation Friedrich Naumann ñu dugg ci Afrique yep. boo paree Afrique nga dem Allemagne Cologne Gumba Spaak nga toog fa def formation pare génn defaat la formation des formateurs mhm. jàngal ñi ñi yow li nga bëgg lan la comment est-ce que tu dois prendre la parole Mm-hmm. man ba paré man bu féké sax sama formation ba paré pareegul. Mm-hmm. ndax chaque jour daw da sék wax ko. Mm-hmm. mais da nga wara xam li tax nga bëgg and ak diw. leader bi pourquoi mo bëgg. pourquoi je l'ai choisi. Mm. il a mis l'individu au cœur de sa politique. il a pris comme fondamental la responsabilité et la liberté waaye nak mu am le respect des droits de l'homme comme premier chapiteau mu indi l'économie de marché mu pare mu indi la démocratie libérale xam naa ne sama rakk yi ñoo ma koy gën a xam ndax na man màggat laa léegi eh, juste pour vous dire que dañoo dañoo tëlme jël suñu bopp yi rëndal ko ci mbedd bi pour mën a taxaw war a wax askan bi paré nañu wala ñi ngi waja paré pour ñen talal seen loxo tek suñu boss président Macky Sall amna habitude di wax ben affaire kenn mënul fëgg dënam ni man politicien la tant que défo 50 ans d'expérience politique wala 30 ans mm-hmm parce que ça, sonne yangi yang. Dans ndax politique moi, li nga xamante ne dafa laal ay mhm. la science humaine qui n'est pas exacte qui évolue selon l'individu dans la société ak li le comportement de l'individu ma nous sommes sur l'institution Je vous taxaw foofu dugal foofu benn <laughs> parce que deug la yene ngi wax li nga xamné yene yéen ngi koy jang ci sen parti. Mhm. mais tay buñ taxawé di sànni xeer euh, comportement xalé yi. Mhm. ne xalé yi xeyna na ils ne sont pas suffisamment formés. Mhm. xalé comportement bi ñu wane ci mbedd mi gënalul kenn. est-ce que yene ñi yoré institution yooyu di aar xalé du ngeen gis sen bopp. damay gis sama bopp waaye bala ma koy gis damay njëkk gis sama bopp ci loolu en tant que yaay en tant que jigéen d'abord parce que amna ay jigéen yo xamanteni yalla mayu len ñu mëna am doom té dañuy am responsabilité yaay dama ni doom nit da koy bëgg rek am ko dang nga koy bëgg nga sabab nga sabab ñaan suñu borom mu neex ko jox la bu la joxee kon boo amee tu as une responsabilité vis-à-vis de l'enfant tu as une responsabilité vis-à-vis de la société et tu as une responsabilité vis-à-vis de Dieu ça c'est ma conviction profonde nañu yaraat xale yi moi je trouve qu'on a échoué en tant que femme nañu yaraat suñuy doom avons rappeler leen ce que c'est les fondements de notre société léegi Aminata daf ko wax ba mu neer dafa am loo xamante ni jomb la benen moo bi mané ko ragal la gis nga ragal moy ko xamantene dafa ragal bu da fay am luy daan ci kawam parce que amna lo xamantene mi ngi yor yàpp la ni la boko défé li moy mooy daan bi waye jomb motax mo bëgg président Macky Sall ñepp xam ni dafa jomb ndax li mu def ni leñol deret la ndax nak droit may encore je j'insiste là-dessus droit may ko histoire politique may na ko ko ndax dafa remplacer président Abdoulaye Wade en son temps, j'avais défendu sa candidature. Wax droit, bu ko moi je suis pour. Il ma ku ñuy ci bi du rek man Macky ma il mu une partie de ça de son pouvoir discrétionnaire mu la protection des enfants et la promotion de leurs droits. yombul na liggéey la yombul dara parce que parents bu échoué sax ñun ana l'état et la responsabilité première de l'état ce n'est pas éduquer c'est d'instruire il faut que l'on rappelle cela ku takk sa doom tabaski jot wala korite jot nga takkal say doom ay or bu àgg fii jaaro yu àgg fii takkal ko chaîne bu àgg fii solo ko robe bu gàtt filmer ko ñu wooma téléphone jéegi ana nga ma ne il faut qu'on rappelle ce que c'est que le droit dafa am loo xamante c'est défini dans les textes c'est les infractions mooy loo xamante ni boo ko defee lii mooy tax yoon di daan sa kaw nous ñu koy ci par rapport à des droits des enfants waaye loolu droit yoonam nekku ci xam nga lan moo ñëw éthique ak morale Si boo juree est-ce que war parce que dafa am loo xam définir dans la promotion des droits de l'enfant est-ce que infraction dafa am te infraction ñu est lii s'il y a l'exploitation de l'enfant dans quel cas bu mendicité amee wala mu am exploitation sexuelle wala mu am loo xamante c'est des effets euh, euh, dóor yoo xamante ni ba xale bi yaram bi am ay problèmes nga laal li nga xamante ni c'est sa dignité qui est un droit constitutionnel service laa doon bëgg a wax loolu man mën naa taxaw waaye am na loo xamante ni mënuma ci dara xam lan moom moo war communiquer xam lan moom moo sensibiliser pour wan na ni su ma mënuma si dara sax dafay am foo xam dafay yam parce que la responsabilité de l'État est incombée en amont comme en aval pour ma wax leen ni yar nañu delluwaat encore waxaat ak suñuy doom parce que état bi duñu ay extraterrestres duñu ay martiens ndar laa dëkk Jolofeen wala Kër Ndiaye kon bu incarner quelque chose parce que jamono moo dox ba lool te jamono day ñu comme ni Khalifa nekkee woon dans un état ba tey dans une opposition ba tey ji mu soxla suñu réew mi looloo tax du taal lu waaye jàngul doo ko xam il faut que l'on sache que les responsabilités sont partagées d'abord mm. par rapport aux parents mm-hmm. qui ont une responsabilité historique et fondamentale et la responsabilité de l'État vient après comme avant et après je le dis man du daw li ma don ndax dama mat sëkk nak li ma don ndax xamna li ma tax a buñ ma ko sante itam bu maté ak bu matul itam dama naan li mën naa ko def ba fi waye dessena ma li ma wara meuna def waye nak ku ci nek nang ci japp ne solo ni ci wara meuna mën a nga faram faccé ñu lan mo dessandi li dessandi yëpp dina ci ñëw ah. da nga ne communiqué da nga yar bi ma gis ci docteur ah, waaye yaa ngi doon wax yar bi waaw même les khalifes généraux ont lancé un appel à la suite du gamou mhm. ñu ni yaraat len éducation bi

<laughs> on a toutes les sensibilités on a tous les bons politiques. donc docteur voilà donc docteur éducation formation parti

loolu dafay wane ne jigen ku mata bay xel la mais aussi jigen ku mata protéger la parce que euh, gis nga événement yu métti yooyu bu amé gis nga dëkk bu ak jamm ñaari segment ñom ñoo ci gëna a sonn muy xalé yi muy jigen ni donc lolu je pense que ci kanam dinañ ci ñëwaat mais cette question dafa am solo mais daf may may d'abord ma adresser ko du point de vue d'abord euh, des masses médias li ñu faral di wax naan des masses médias même si peut-être que euh, terme bi un peu passé de mode à cause ou grâce on va y revenir aussi grâce à li wax les médias sociaux la révolution numérique. absolument mm-hmm. tey fi mu toll nii ni ñu toog euh, nit ñi mm-hmm. à la télé mais aussi seeni euh, téléphone seeni mm-hmm. smartphone. loolu lu tax ma koy pour dire que violence dina ñëwaat formation bi mhm. mais euh, je veux dire euh, ci yar bi parce que yar bi li tax mu sooke violence bi ci la manam violence bi euh, c'est le c'est en fait la la suite logique c'est la violence et violence bi bu ñu fàtte ne d'abord day commencer par la violence verbale wax ci sank amna sama benn sœur bu ko wax wax ci nañ koy nañ koy sang malanu sutura mhm. du lepp lañu wara wax ci alcorane sax wax nañ ko du lepp lañu wara wax euh, bu loolu weesoo euh, formation bi ci parti politique bi euh, li ko jiitu mooy yarin wi mooy yërmande bi mhm. te président tam jàngal ñu ko parce que nag li soxna jéggi wax mooy nuyu waa université Gaston Berger parce que nag fa lañ jógee mu nekk une fierté on est Sanaroise et Sanarois di nuyu sama mbokk ukajeen yi mais mhm. mais tey Sanar moo xew ndax ñaari Sanaroise ñoo fi nekk donc di wax ne Euh, li nga xamante ni moom moo ci ëpp solo mooy euh, yërmande bi dafa des mm-hmm. ci li nga xamante ni moom mooy kër yi bu ñu réere mbir ne gis nga uti neex na trop am neex na mm-hmm. mais am am bi gën a neex sànq soxna jéggi wax na ko mm-hmm. que nga nekk yaay biologique wala nga nekk yaay boo xam ne euh, c'est par affection li gën a am solo ci nit mooy tey li gën a maanaam am solo sa patrimoine mu réussir muy xale bi mais nag pour mu réussir dafa am fu mu war a jaar Euh, euh, ay jigéen lañu xam ñi xam nañu li may wax mënuloo rek ne xale bi euh, am na deux ans am na un an et dama koy bàyyi ci kër gi damay dem uti uti bi ngay uti am na lu gën am am solo loo xamante ni moom ngay uti ci xale bi la nekk ci yar bi mag ñi dañuy faral di wax naan jàng yàggul ñàkk jàng moo yàgg waaye itam yar mettiwul ñu ñàkk la yar moo metti ndax daf lay topp ba sa giiru dund te ñak yar bobu euh après ñëwaat ci li nga xamanteni tay adhésion ci parti politique parce que si nous aussi ñëw ci parti politique dañ ci ñëw ak suñu bagage intellectuel dañ ci ñëw ak suñu histoire dañ ci ñëw ak suñu parcours dañ ci ñëw aussi parce que attention les partis politiques aussi euh, ne sont pas là aussi pour éduquer

pour la première fois ma euh, dans une assemblée dégg président Macky Sall lancer un appel à la jeunesse mu ne dama bëgg ngeen ñëw ànd man ñu Sénégal c'est ce jour-là que je me suis engagé en politique te loolu aussi lan moo koy indi mooy posture leader bi nga xamante ni moom en face de toi peut-être que keneen bu ko waxoon ak yeneeni anam du ma du ma ko def parce que aussi est-ce que dina épouser mes valeurs koo xamante ni dafay saga, pour attirer nit ñi man boy s'aga pour attirer nit ñi man dama lay daw parce que xawma saga ken kenn jàngalu ma ko dañ ma jàng wekk euh, ak yar boy nuyu mak da ngay sukk ku la ben fan sax boko nuyu da ngay sukk boy joxe ndox da ngay sukk da ngay ormal mak te légui li ñu gis wax fa dëggaa neex yàlla euh, dafa euh, manam safanok li nga xamanteni ni moom la donc formation bi effectivement c'est extrêmement important mais formation bi d'abord c'est le leadership formation bi dafa nek qui ki nga ne moy porter projet bi nga xamanteni ni mom projet politique effectivement euh, mu je pense que tay euh, à l'échelle même euh, universitaire je pense qu'au niveau des sciences politiques des sciences qu'on appelle les sciences politiques je pense que l'ol aussi amna manam à ay ay charte ak ay yo xamanteni def nañ ko ci mu am solo mais li ma bëggoon euh, yeggale ci fànn boobu parce que man dama dama jiite benn association boo xam ne dañ koy oowee association Tëngéej Tuuti Tànk euh, euh, may rafetlu bu baax jàkkaarloog madame la directrice bi nga xamante ni moom mooy toppatoo wàllu tuut tànk yi tuut tànk dafa am solo man dama mës a gëm ne boo bëggee defar réew defaral ndaw yi parce que ci ndaw yi ci ngay tabaxee jikko yi xam nga dama fort ci weewu mag ñi ne Euh, bant boo ko bëggee jubbanti nga xaar ba mu wow da fa noor nawet fa boo ko bëggee jubbanti dangay ngay da ngay maanaam ca ba mu tooyee la donc euh, nañu gën a euh, encadrer xale yi état aussi comme ni ko soxna Jéggi waxee état mënul def lépp donc man dama gëm soxna Aram dama gëm engagement communautaire ci xale yi loolu moo tax aussi damay vraiment ñaax soxna yi fi nekk di politique nous sommes ñu dugg ci la vie associative la vie communautaire parce que fu politique la politique dafa lacc aussi xalé yi ngeen tété nous xalé yi ñu won len ci la euh daf ma doon te ci li nga parce que université dama bokk laboratoire de Berger la laboratoire média technologie information communication Mayor euh, axe de recherche pour les médias et société africaine Pour euh, ci solos média ci tabax li nga te wax fa actuellement média yi euh, confrères responsable presse bi une partie de la presse responsable waye lu ci ëpp euh duma ne ñoo yàq jikko yi mais bokku nañ ci ñu yàq yàq jikko yi euh, dañuy faral dañ doon jangal école journalisme nañu euh, dafa am triptyque bo xamanteni dañ koy jangal mu nekk euh, responsabilité mu nekk aussi mesure mais aussi mu nekk éthique li nga xamanteni dafa am solo ci phase biñ nan collecte production mais aussi diffusion de l'information Té loolu tay dañu nek ci ben phase bo xamné dañuy xëccio. dañuy manam ak giiroo information dañ naan ah bi génn rek. xaaral recoupement saute. ah mën na recoupement dafa sauté recoupement dafa sauté. mais surtout aussi li li gën a sauté mooy valeur yi nga xam ne moom la ñu war a lal ci bu ñuy joxe information. ak valeur yi nga xamante ni moom moo war a lal si bu ñuy jox nit micro. loolu je pense que quelque part il faut que ñu gën ko encadrer ndax fi ñu jëm moo tax sànq wax naa la ko Sénégal dafa nar a bokk ci dëkk yi nga xamante ne ñu bëri dañ koy teg seen i gët mi ngi nii ba pare ndax gis ngeen li fi xew manifestation rek ñuy toj ay université euh, ñuy euh, euh, toj ay station service ñuy yàqal ay doomu aadama yoo xam ne c'est des années d'accumulation c'est des années maanaam maanaam de je sais plus comment on appelle ça encore d'épargne ñu yàqal leen ko président wax na ko am na ko wax sànq mu ne euh, moom Sénégal bi nga xamante ne ni tey aussi moom la bëgg a préserver mooy Sénégal bi nga xam ne day teel a yeew di guddee tëdd may am une pensée pour ñi nga xamante ne nii euh, ñoom ñoo nekk dans le secteur informel euh, ndax man sama maam yàlla na ko yàlla yërëm xare ko àjjana daan jaay jën ñi nga xamante ni dañu jóg fajar ba ma daan def kenkili ba quatre heures et demi ma daan fekk ci tali bi ñooñu nga daan gis ci car rapide yi ñu yenu seen i pañe jën di dugg di marché pour jaay guddi ñu oññeeku wala boog balaa ñuy oññeeku day jaar géej xool ndax dinañ am jën ndax nañ am fu ñu ko glacé bu ñu yeewoo yóbbuwaat ko ñooñu ñooy Sénégal te ñooñu aussi le président Macky Sall ba mu ñëwee ba tey depuis 2012 ñooñu le président di liggéeyal boo demee soxna Aram boo génnee ci dëkk bi boo rombee cees àll bi léegi àll amatul tali yaa nga fa ndox yaa ngi fi courant ngi fi du fait quand même d'un homme qui sait dafa le Sénégal des profondeurs dafa xam aussi li Sénégal soxla dëgg mu nekk ñu jox ku nekk qu'il n'y ait pas un Sénégalais et des Sénégalais mais qu'il y ait un Sénégal de tous pour tous kooku on est fier mu ñëw beaucoup ci ñi nga xamante ni moo ñu formé man bu may formation politique mën n'a wax né président Macky Sall moo ñu formé te pareegul ci formation bi wax na ko ci discours il va davantage encadrer et le Sénégal et l'Afrique parce que tay loolu ko yàlla jagleel. deug la madame Louise koku euh, Diouf euh, liñi ñuy euh, blâmer xale yi day bari lool elek tamit ñu né est-ce que xalé yi bayiwul len ak sen bop ndax yeen ñi nga xamné yeen tamit yeen nek ci terrain politique bi seeni discours yeen ngi wax ak xalé yi. euh may tontu ci loolu dafa am luma ma jaaxal keroog jéegi madame biñ la invité à la télé. am lu kii torop parce que da nga nii yenn saay nga delloo benn xale parent bi du ko jël vraiment dama tëdd bi guddi jaaxal parce que boo munee di jur doom ni joxe nga ko pour mu nekk taalibe ñu gis ni mbedd mi rek lay fréquenté parce que xasuma kenn de mais dama wax li nga xam ne moom laa gis parce que defe naa taalibe bu njëkk dañ ko defoon pour toj sa xol jox la jox ceebu jën bu ñu jaxaseeg euh, maafe di ak da pour nga lekk ko ndax mu toj sa xol mais léegi taalib ba boo fekk mu suur nga jox ko mburu booy wane ginnaaw mu la ko fay tagalaat mhm. loo xam ne mun na ko mun a yow en argent rek lay wut donc xale boobu yow parent bi tey ñu delloo la ko nga ne yow doo ko jël est-ce que kooku waruñ ko woon a obligé systématiquement pour mu defi planning familial aka il faut loolu ñu ko ci accompagner

ñaata mineur la ñu delloo seen i kër bu ñu waxee ñu ne ñàkk def dara bi moo ko indi mais ñàkk def dara bi dafa am loo xam ne xale yi ñoo war a am jom xam ne argent facile du profiter kenn te ñoom ñëpp dama seetlu léegi est-ce que dama leen di laaj yéen ñi nekk ci plateau bi dama ti ngeen ci atelier tailleur fekk fa xale bu ndaw buy jàng apprenti tailleur man de seetlu naa mais gisatuma ko te bu njëkk apprenti tailleur yi dañ daan fees del ñoom lañ doon yooni bouton ñom lañ doon yoni ci mercerie fu ne ñom lañ doon yoni muy garage yu mécanicien yi la même chose da nga daan gis ay xalé yi fa ne di jagg ci garage yu mécanicien donc le mal nit ñi dinañ wax mais il faut fofu it ñu wax ko il faut parents yi ñu obliger len parce que école publique yaangi ngi fi ñun ñaa ngi dimbalante ñun politique yi am na ci ño xamné seen rôle yépp yépp yépp mooy jël ay xale di leen fayal école parce que boo jëlee benn famille développement baax na jox nit ki mu liggéey am lu mu am baax na mais man li ma gëm mooy nga jël ci benn kër jël ci benn xale parrainage gunge ko ba mu am li jaasaam ndax kooku bu liggéeyi rek dina mun a yóbbu ñu bëri ci famille bi mais bu ma joxee yaayam cinquante mille na ko demal ubbi en petit commerce bu ñu paree ñun jigéen ñi ne lu ñu koy def ndeyale bàyyale du ñu toppatoo njàngum xale ba te alors que njàngum xale bi moo gën a am importance Demain nekkoon ci benn commune comme première adjointe au maire ñu ne femme yi waxtaan jardin d'enfants, bi 2000 francs l'année la laaj fay par mois am parents yoo xam ne daawuñu ko honoré 2000 francs par mois là la wax de te ñooñu tey ku leen woowoon tey ni dañoo am dayal ñu kaske ay millions te munoo def parce que 2000 francs par mois bu bëree bu c'est 20 000 francs l'année. Dans ndax 10 mois lay donnent, école bi coule tout le temps te yow mouno am euh, loolu pour nga defal ko sa sët wala nga defal ko sa doom

ngeen dégg kenn ko xamné c'est un apariste bok AFP xawma euh, euh progressiste AFP nga dégg ko muy wax wax du ñaaw bëriwul bureau politique sax dañu ñaan président naan ko ndax est ce do doo nit ñi ñu wax gëna pank ki mais toujours def ñu ki lu la yar mayul leneen du la ko may donc amna genre leader yo xamné bo leen ko amé yene yi da koy rus yene yi da koy jombal sa bop ndax ki nek en face de toi limu la jangal mom la bëgg def mais damay ñaan parents yi

ni nga commencé moom mi wax na ko nee na président ma Sall ba mu tasel en 2016 mooy leader am te lam discours ba mu tenir moo ko tax a dugg en politique man nag damaa defe ni coow li xëy na léegi dina dakk parce que lépp luñ daan coow koo waxee mu ne la troisième mandat léegi comme troisième mandat leer na li ma leen di ñaan mooy nañ bàyyi xale yi seeni kër ku war a jàngi jàngi ku war a ami métier nga dimbale ko mu ami métier ku war a defi dara nga dimbale ko mu defi ko te ñu wax ñu seen ay programme Le programme Bobo Souka PDS euh, wax nga ko sànq jàngalekat nga xale yi est-ce que yéen tamit seen offre politique yéen a wax ak xale yi voilà avant may ñëw ci suñu offre politique euh, je suis agréablement surprise de ma grande sœur Diégui et ma grande sœur docteur Satou par rapport aux droits euh, de la petite enfance parce que dû je suis enseignante fonctionnaire machallah mais daf ma jaral ma suis fonctionnaire mais ma dem fayiwaat deux ans de wat c'est le secteur de la petite enfance un secteur qui est euh, la petite enfance mu le ciment de toute civilisation humaine suis wax na ko léegi pour mu dire kanam ci taatal bu ndaw avons commencé gis nga xale bu njëmbët gi baaxee réew boobu bu ñu xoolee réew ba fa muy ci kanam la donc bi ma de cette euh, intervention dama contente parce que man suis très laa Je suis may wax ni mère Teresa parce que je suis ni xale changer donc je may sant yàlla bi ma plateau euh, au-delà de l'offre politique en tant qu'enseignante en tant que syndicaliste parce que tout le temps nous ngi ciy tout le temps nous ngi demander ñu respecter les droits des enfants tout le temps nous demandons, par rapport à la protection euh, de la petite enfance sauvegarder préserver li nga couche vulnérable mais là permettez-moi de dire qu'il faut que nous situer les responsabilités situer les responsabilités à trois niveaux pourquoi à trois niveaux que les parents yi nous démissionner parce que les gens yi ñu gis man de bi may jàngale samay élèves dama tolloo ak naturellement moi, tax samay élèves ñemewu ma leen woon dóor ay xarit laa leen defoon tellement que les enfants étaient éduqués ba man dama daan ànd ak samay xarit euh, samay élèves ñu ñëw di ma seet sama parce que éducation boobu noonu moo moo moo tumuranke ci xale yi c'est le reflet de la société parents yi dañu démissionner ci une mission il faut que les parents ñu conscientiser wu l'école c'est vrai d'éduquer éduquer mais euh, dafay former instruire mais l'éducation de base si kër yi lañ koy lañ koy jëlee suñu paré ñu daal wax la formation politique fofu ngay wax avant l'offre politique la formation politique dafa am solo si acteur politique bu mu munti doon dafa am solo ci comportement amna solo ci com euh, ci communication mais amna solo ci ci sa façon de faire gis nga yoy boko tumu ranké so bëggee né da ngay politique c'est politique boko xolé do dem fu sori ndax ay njaaxum rek ngay def wala yow ñi ngay former euh, ay bordelu société bi la ñuy doon ngeen baal ma ci kàddu bi parce que nit lu mu jàngul du ko tari pour nga nekk politique il faut nga am la formation il faut nga am l'expérience politique mais il faut nga am loo xamante ni des valeur sacro yoo xamante ni mu ngi nekk si si si yow nga mun a jiit ay nit de jom de fulla de kersa ndax nit ki war na am euh, kersa def yenn yi nit ki war na jommale est-ce que yéen a ngi am cadre yu ngeen ko waxtaanee ak xale bien sûr ñu ngi am cadre yu ñu ko waxtaanee ak xale en tant que enseignante en tant que conseillère de la petite enfance en tant que syndicaliste parce que dañuy dem ay missions et tout mais en tant que politicienne parce que dañu am ay ay ay militants yu ndaw moi je suis responsable politique j'ai des militants yu xam ay primo votants la lañu damay waxtaan ak ñoom comme yaay ji leen jur bien vrai que li ma leen magee bëriwul. parce que ñooñu ëllëg ñoom ñooy nekk ñi nga xamante ñoom la ñu am yaakaar nit ki boo ko waxul jàngaloo ko du tari nit ki bu jàngul du tari donc loolu képp ku nekk acteur politique war na si gën a euh, waslu ak wante képp ku nekk yaay war na gën a waslu ak ci digganteem ak njabootam maman daf ko wax léegi nan nga mën a juree nga démissionné yow soo xëyee yaa ngi toppatoo loo wuti mais sa doom ji nga xamante ni yow yaa ko indi l'enfant n'a pas à venir au monde ay parents ñoko andi ci aduna mais ay parents suñu démissionné xalé bo fan la jëm éducation de la rue lay am té l'éducation de base bu échoué rek c'est fini xalé boobu non irrécupérable lay doon donc waxtaane bi ci kër yi waxtaane ci instance politique yi mais waxtaane di redresser di changer di corriger ci école yi man côté bobu noonu la xamante ku nekk ak acteur ku nekk fo togué ci famille yi ma wax ni war nga ci gëna redoubler waat d'effort euh, parce que Sénégal le Sénégal de demain xale yu ndaw le Sénégal bi nga xamante ni moom la euh, pour aller euh, ci émergence bi ma grande sœur wax léegi docteur suñu ressources naturelles yi nga xamante ni moom la comment exploiter mais la jeune génération a am chance quelque ko mais nous avons leen formé wul buñ leen jàngalul lan mooy responsabilité comment gérer comment avoir des postures républicaines mais nan nan la de yaakaare demee si ñoom euh, évidemment. Et on, le regrette parce que maintenant, l'espace politique n'est pas assaini. Euh, dans le milieu syndical, le gouvernement a wax rationaliser la table de négociation nous syndicalistes yi rationaliser nañ ba euh, mais moi je veux que l'État me pousse la réflexion par rapport à la rationalisation des partis politiques ces partis bidons ces partis qui n'existent que de nom ces partis qui ont dañuy expérience une bonne vécu politique Nous, bëgg a changer Sénégal bëgg changer la donne bëgg changer comportement sénégalais bëgg changer l'éducation, bi nga xamante ni mais l'État ne jël ses responsabilités son courage à deux mains euh, rationaliser ou bien mu assainir l'espace euh, euh, politique je pense que loolu buñ ko fait, évidemment dina mettre, mais dina parce que pour pourquoi dina ko jar bu ñu xoolee émeutes yi ñu génn léegi les bis yi ñu lakk ñan ñoo ko lakk ay xale ñoo ko lakk université ñu dem ñu yàq ñan ñoo ko yàq ay xale ñoo ko yàq Auchan yi ñu lakk Total yi ñu lakk les boutiques yi nga xamante ne des des sénégalais lambda ñoo jël euh, seen épargne ñiy jël prêt pour def ko ñan ñoo def loolu yëpp ay xale ñoo ko def donc loolu il faut ñun ñëpp ku ci nekk responsabilité bi nga am ku ci nekk li nga xamante ne war nga ko def bul démissionner bul tàyyi Nous ko courage nga def Sénégal ñu mëna souffler demain. Mhm. voilà euh, l'offre politique euh, par rapport. Euh, au parti démocratique sénégalais. Mhm. pour le capital humain. en tant que cadre parce que je suis membre de la fédération nationale des cadres libéraux en même temps je suis membre de la fédération nationale des enseignants libéraux. Mhm. dañ ci on a produit un document. moi j'ai donné trois contributions benn sur l'axe capital humain par rapport euh, à la petite enfance parce que j'y tiens beneen sur le secteur éducatif beneen sur la protection sociale loolu yëpp dañ ko def pour mun présenter ëllëg suñu offre c'est capital humain mais aussi si éducation de base. dëgg amna am na solo soxna euh, Aminata Diallo euh, taxawu problème diagnostique diagnostiqué ngeen ko wax ngeen li nga xam am solo. jëm ci wàll formation mais tey naka ngeen mën a def yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci langue politique bi ba loolu mën a toq ci nopp xale yi. waa aram <laughs> responsabilité yi bari na ñun politique yi nag nañ bind suñu bopp ci kaw xam nga lu tax injustice bu baree ci réew rek nii lay dem xam nga liñ naan lii raam ci ñàgg bi la jëm gis nga boo xoolee 2012 wala avant di nga gis na ne lii raam ca ñagg ba la doon jëm mu ngi door a agsi parce que pluralisme politique mais ñun ñi nga xam ay parti traditionnel lañ nga xam ne sañuñu ko xam nga man 90 euh, biñ may maison du parti kenn wàcceewu ma fa nii je dañ ma fa wàccee ma de New York pour représenter les enfants du Sénégal au premier sommet mondial de l'enfance war a waxal les enfants du Sénégal maa ngi fàttaliku président Abdou Diouf dafa allé à ma Dakar nga xam première fois laay à Dakar jógee ba Kolda ñu yar la

mun na am ñooñu du ñu am lu ñu sañ waaye ñeneen ñay juddu parti yiy juddu dina am ñoo xam ne dinañ def lu kenn sañ ta def te foofu la ñu egg kon nos responsabilités non partagées beneen bi aussi l'éclatement de la famille nañu waxante dëgg ñun ñii ñun xale yi ñun xale yi dañuy dem sëy bàjjen naan ñun daal ñun ak sunu jëkkër ak sunu appartement aram loolu dafa am lu muy joxe parce que démb ak barki démb dañuy bokk ci kër gu mag maam nekk fi bàjjen nekk fi maam bu góor am lu muy def ci sëtam yu góor ñi maam bu jigéen ak bàjjen yi am lu ñuy def ci seen seen ay doom yu jigéen ak seen ay sët yu jigéen avant dañ daan wax maam day ñëw laal la nii yoo xale bu jigéen bi xool ndax yow di nga yëngu wala sol nga short parce que dañ daan wax ne jigéen balaa ngay woddu da ngay am looy sol boo solee la ca suuf nga teg ci short mbaa cuisaar nga woddu sër loolu lañ daan jàngal xale yi daawuñu nangu sax yenn jeux yi xale yi jigéen ñi di ko def waaye léegi ñun dañu bëgg nekk suñu appartement ak suñu jëkkër kese yok sa jëkër ngeen di saganté sa dom di dégg muy and ak nakar ñu jël aussi yenn tradition yi def ko lenen ndax wax nañ ci dara xam nga man spécialiste la protection de l'enfant la xamna ñun bi amé fi Covid dañu bayyi suñu lepp and ak euh, madame le ministre ndey salu Diop Dieng ñëpp gis nañ ma. ñu jël suñu ay centre fi ville de Dakar madame le maire Soham Wardini duggal ñu duggal ci xalé def ci suñu ay moyens parce que loolu la ñu ndax man 2000 xam nga ban ban année la doon def un première année droit. parti socialiste yi door daanu ñu ne ñu dinañ leen réduire à néant waaye terewul Pape Babacar Mbaye ne dafa daf ñu jàngaloon ñun and leen ak xel ñun kenn mënu ñu réduire à néant te terewul ñu dara xam nga ñu na caisse de sécurité sociale bi ñoo yàq ñoo jàkkaarloo woon bus 13 fa daan jaar waaye amna luñu lu parce que mouvement de jeunesse yooyu aram mais dañ ko rey dañ ma bal les libéraux dañ ma bal du temps du parti socialiste les mouvements à foulard là dañu amone solo te loolu ñooñu amna luñu daan def ci xalé yi parce que bo gisee le mouvement les scouts ak yooyu mercredi bu joté da ngay dem ci école fekk fa ñu dajalé xalé yi di len jangal civisme di len jangal naka lañuy nekké nekkee un bon citoyen loolu yeb dee demal conseil national de la jeunesse da ngay gis né les mouvements de jeunesse les mouvements à foulard ñi daan def éducation populaire légui sen doolé dafa wañéku kon nag résultat yi moo mun a am mhm. bu fekkee ne léegi xaalis dañ koy lijjanti bu fekkee ne injustice dafa bari ba pare la vie et chère au Sénégal nañ waxante dëgg nañ waxante dëgg bu buñ la waxee ne fii am na lii am nañ pétrole investissement bu bëri neex na bëgg nañ teer bëgg nañ berte mais nañu gën a def ci xale yi dañuy progresser nañu gën jàppale di géji-jégi mhm. mii mhm. direction ba mu yor na ci gën a am moyen ministère bi gën ko jàppale pour moom mu mun a jàppale dañuy nañu gën a jàppale daara yi aram. Mhm. nañu waxante dëgg gis nga xale yi même bu dee jëlatuñu gis nañ fii ay xale yuy reyante. gis nañ ne léegi xale yi kese ñooy dee moom xam na loolu chaque jour boo xëyee jigéen dee na xale dee na ñun jigéen ñi dañuy dem liggéeyi bàyyi xale yi ak ña nekk ci kër ga di fa liggéey ñun yaratuñu amatuñu temps parce que pauvreté bi. Mhm. parce que léegi góor mais ñun suñu papa yi dañ daan joxe dépense ak aram suñu yaay dañ daan jaay caaf waaye suñu papa da daan dépense vie bi cher na cher boo xam ne ni ba léegi. ñun jigéen ñi dañuy liggéey góor ñi dañuy liggéey kan mooy def éducation xale yi ka kay liggéey ca biir kër ga jànk ba non kon ñun ñëpp suñu responsabilité la. je vois que yéen ñëpp ay xoolaat suñu bopp ay actrices xam ne ne xale yi dañ leen war a jàppale waaye ñii liggéey ci xale yi dañ mm. leen war a jox lee moyens te politique bi da cee dugg ba mu ëpp moom xam na li may wax am na yu bëri moom bu dee moom rek en tant que femme de euh, juriste bu dee moom rek ku ko bàyyi woon mu appliquer droit bi kon kenn waxatu ko waaye limite moo am mhm. parce que sunu aada day dugg sunu cosaan day dugg ndax daara fii lañ ko fekk te sunu aada la bokk kon am na yoo xam ne moom munu ko da ciy am limite dama ko ciy jàppale parce que ñun ñëpp ñoo ciy liggéey waaye nag nañ ko ñeme nañ ko ñeme neef lii baaxut nañu wàññi injustice bi na ñëpp gis seen bopp bu kii ëppale kii bu ñu wane na xam nga ko xool suñu plateau fii ñaari APR fi rek ñun ñii benn lañ waxuma injustice la de mhm. mais nag yooyu yëpp nañ ko xool parce que ñeneen dañ koy gis

waye nak nañu xamné dialogue ñun ñu dem dialogue ba dialogue euh, comme chapitre ñu terminé ko ndax euh, li ci euh, dialogue national bobu dialogue ngeen Penda conclusion yi dégg nañ président de la république ci discours bi sa main demeure tendue mhm. mi ngi xaar ay idées mi ngi propositions bëgg na élection yi jaar yoon gouvernement bi taxaw si lan ngeen di xaar ci weer yi des ci élection bi ak ci président de la république lan ngeen di xaar si moom. may ma tuuti rek Arame nga baal ma ma rebondir un peu sur. rapidement rek parce que temps bi jeex na te dama war a def tour ça ça nous intéresse à uh-huh. parce que uh-huh. soo xoolee événement yu génn yu mujj yëpp ay ndaw ñoo ci amay gaañu gaañu ay ndaw ñoo ci génn àdduna ay ndaw mun nañ ne ñoom lañ fi eh, sacrifié mun naa ko waxee noonu. parce que amana responsabilité yiñ fi sama sœur yi lim bu fekkoon ku nek jëloon nga sa boss amana li am ñuy wax ay 30 mois euh ñi ne ëpp na du won am euh na sank lo xamne daf ma marqué won temps Covid bi par rapport ak euh, madame le maire euh, Soham Elwardini, par rapport xalé yi mu doon jël di leen récupérer di leen dougal ci centre socio culturel yi mu nek initiative bo xam am solo mais aussi gis nga la question là des enfants c'est une question qu'il faudrait pas passionner parce que dafa bëri ay mbir si am je pense que ñoom ñi si nekk di ci yëngu yëpp xam nañ ko les enfants talibé par exemple nekkul xale boo gis mu gàddu potam rek talibé la et pourtant amna ci si yo xamanteni so len wowe mokal nañu ñi ngi jang mais amna xalé yo xamanteni amana ni amaana sax di wax parce que c'est très sensible so len waxee xam mënuñu sax taril fatiha bu ag amna ci si xamanteni xamante ni dégguñu sax làkku réew mi yooyu c'est des questions yo mm-hmm. il faut ñu ségg ko pour bañ nous frustrer aussi ñi nga xam dañu euh, li nga mais aussi responsabilité du da ngay aussi la la je pense que parents aussi nañ euh, perspective dugg ci ci perspective yi euh, président de la république di xaar lan élection yi waaw parce que tey jii xam nga dialogue bi dafa dafa décrisper lu bëri ay responsable ay kilifa ay forces vives de la nation ñu tok nek ay kilifa euh, ñu def ay débat contradictoire ku nek am lu la yitteloon ci Sénégal ku nek am ay points ay sujets yo xamanteni ni daf la ñoroon pour ñu waxtaanee ko ñu ñëw tek lepp sur la table président de la République dem na ba amul sujet tabou mu dalal xel yu bëri parce que ñi nga xam ne ñu ngi fi sujet dialogue bi amaana dañu foogoon ñi fa nek matuñu wala ndax dañuy dem pour diile wala ndax dañuy dem pour wayé di wala dañuy dem pour ñakal sen bop fayda wala ñakal ñi nga xamné ñom lañu andal fayda ñu nak maté ko nak sëkk sëkk ñi nga xamné ño téwalon parti politique ya fa nekkoon ñu leen di féliciter aussi ci tenue des débats parce que aussi en un temps record ñu waxtané fa sujet yi gëna am solo ci réew mi parce que aussi euh, c'est vrai mënoon nañ fa dem rek ñu waxtaan mais mu bari point de désaccord wala point de non accord mais mat ak aussi expertise aussi am fa nga xamanteni ni bu ñu ba trouver wuñu consensus ci dara ñu dénk ko benn commission ñom ñu dem waxtaanee ko ñu àndil leen conclusion yi ñu xol de man la la vision experte lan la si joxé ñom ñu mëna teunk lolu ngir mëna génné ko sénégalais liñuy xaar nak ci lolu bari na ay point d'accord. yoy mom liñ ciy wax rek moy comme li ci président de la république commencé moy Madame, euh, c'est vrai que dor bi ko wax parce que ko travestir <laughs> Sénégal ils sont dans la manipulation à outrance euh, lépp dégg voilà interpréter ko mais je pense que ñi ko liñ ci d'accord ci dara rek nañ et je pense que le président de la république commencé par rapport à li nga conseil des ministres lañ aussi si point nga euh, tënk ko euh, jàllale ko assemblée nationale aussi ni ñu mën ko appliquer dans les plus brefs délais leneen li nga aussi ñu ngi koy xaar mooy point yi nga commission yi ñu koy continuer di waxtaanee ñuy ñaan rek euh, discussion yooyu continuer et aussi ñu am solution yo hamanteni parce que les lu ñu fay waxtaanee bu fa solution rek c'est pour le bien des Sénégalais parce que lui contrairement à ce que les gens pensent que politique yi seen bopp lañ fa nekkal fii ban décision moo fa nekk décision boo xamante ben benn nit la jari mais décision une fois fa jël décrispé na déjà euh, climat politique bi faire na ba ñi nga xamante ni nañ par exemple nous ñu élection 2024 mais loolu yëpp décrispé nañ ko nous ñun Sénégal ñu fi bëri lañ doon wax élection inclusive na pour bokk mais tey jii bu ñu ba am ay porte de sortie ci loolu que mais dañ koy santé yalla, mm. té aussi ñaan aussi que lépp li nga xamanténi teunk nañ ko ñu applique fo pour le bien des Sénégalais mais benen bi nga xamanténi aussi bëgg nañ ko wax moy tey jii ni xel war na gëna dal xel war na gën a dal dans la mesure où mais ki taxoon ñëpp di naan waaw du bokk du bokk warul bokk parce que constitution mayu ko article vingt sept wax dëgg yàlla wax nañ ko mu booy ay nopp nul ne waaw wax nañ ci wax dëgg yàlla ba moom ci boppam ci responsabilité boppam wax dëgg yàlla mu taxaw ne moom du bokk te aussi jël engagement nag ne dina fexe ba élection yu libre euh, et transparente am ci Sénégal yaakaar naa ñun ñëpp objectif commun boobu la ñu am mm. ñu fexe ba aussi nag parce que nous, au Sénégal, malheureusement, nous avons un problème de choix, parce que nos choix, parfois, ne sont pas très objectifs. Mais moi, il y a une élection, il y un choix objectif, et je pense que le meilleur profil après le président Macky Sall, nous avons un bilan magnifique, était aussi, il mais son grand frère libéral, moom mi nga un patriotisme am kenn laam laameetu Il ci Il une a une campagne. non campagne je dama xam ne rek euh, fii fii ku koy doxal rek lañu soxla ki nga xamante ni c'est-à-dire mate ci dayo mate na ci parcours mate na ci gis-gis ci vision mais mate na aussi ci vision libérale parce que aussi. il faut ñu xam ni journal de la campagne xam <laughs> journal parce la campagne parce que lolou dinañ ci gëna dugg mais dama bëgg rek ñu xam ne. Sénégal tollu na ci enjeu yi euh, madame la directrice euh, Nafissatou mi ngi koy wax sànq ci enjeu sécuritaire toll na ci enjeu du moment yo xamné par rapport ak pétrole biñu am ak gaz biñu am ak beut yi extérieur du xol Sénégal par rapport ak enjeu yoy non war nañ mëna a am nak ku am dayo wax nañ fi sank ku am expérience politique mais war nañ ci wax aussi ku am maturité politique war nañ ci wax aussi ku bëgg réewum ku am patriotisme parce que dëkk dina toll fo xamanteni du loxo ku nekk rek euh, ci la wara dal ça je le dis pas parce que je suis partisane mais warul dal ci loxo ku inexpérimenté réew mi fi mu toll nii warul dal ci loxo defante kat réew mi fi mu toll nii war na tegu ci loxo kuy woote jàmm kuy woote retour aux valeurs républicain parce que président Macky Sall aussi wane na yoon delloo si na valeur mhm. delloo si na république valeur de la république delloo si na aussi jom ak valeur yi ñu fi wax yi yëpp donc nag keneen ki nga xamante ni mooy ñëw pour remplacer ko uutu ko ngir dëgëral li mu fi def mais aussi yokk si vision bi nga xamante ni fa lañ bëgg Sénégal dem fa il faut ñu tànneef bi nag ñu seet ko te tànneef boobu nag man ki ma leen di joxoñ moom

euh, les Indes ak yeneen dëkk yi nga xam actuellement ñi ngi dem vers l'émergence ils ont misé sur leur jeunesse mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. jàngaloo len, yar len. gis nga ñun Sénégal bis bu ñu bëggee ne dañuy génn ci euh, sous développement bi ñu nekk nii te ñu duñu jàngaloo xale yi duñu len yar duñu len tagat dañuy nax suñu bop on ira nulle part duñu dem président Macky Sall lim fi def yépp tay jii ni buñuy dem bay toj berté di dem bay toj lenen c'est parce que ñun xamuñu euh, que né li ñi ñuy toj ni ñun ñokoy koy jaariñoo le président Macky Sall du dem le président Idrissa Seck demul liberté bi ñun ndaw ñi ñi nous nous euh, infrastructure mhm. et donc je pense que sensibilisation il faut ñu nous dem ñun aussi parce que aussi euh, il y a un discours populiste qui a duré mo indi violence euh, verbale bi violence physique bi mu injustice te duñu légitimer aussi ben type de violence mm-hmm. mais nak mm-hmm. liñu bëgg wax moy amna violence verbale buñu banaliser ci réew mi ba mu à des proportions yo xamanteni fi ko fi waxal xolam bi moy moytul bo ci tegee baraada mu mu mu <laughs> ñu progresser rek rapidement ci perspective yi euh, petite enfance mom ni mako waxé waxee passionné na leen ah passionné leen lool sax waaye nak nañ progresser ci perspective yi Coco euh, Diouf Louise Coco Diouf AFP tey fi ñu jëm euh, ci ay élections apaisées ni ko président de la république bëggee lan moo ñu ciy àggal. li ñu ciy àggal rek mooy lii ñu commencé ñu continuer ko dialogue bi point yi nga xam ne am nañ euh, yi nga xam ne des ñu fexe ba am consensus peut-être lépp lépp mënut a sotti mais am na loo ci xam ne na sotti mais xam naa ni nag ndono li bu dee Benno euh, Bokk Yaakaar continue na ku ko yelloo mooy. que président Macky Sall di joxoñ Benno Bokk Yaakaar nii kii mooy candidat te logique pour logique damaa defe ni loolu moo war am ndax moom moo commencé moo nekkoon euh, boppu raay bi émerger au Sénégal ba ñëpp kenn mun a wax ni liggéeyu te muy coalition boo xam ne coalition bi gën a yàgg ci Sénégal ci la bokk am na ñu ci rocceeku dem ñëwaat am na ñu ci rocceeku ñëwaatunu mais damaa defe ni coalition la boo xam ne vraiment ci fondement ak li liguey liggéey Sénégal gisaguma ko ko fi liguey continuité la comme ni nga ko waxee ndax lépp loo gis kii day commencé kee yëggali kii commencé kee yëggali mais damaa défini Sénégalais yi ñoo faté parce que li Macky Sall commencé surtout pour les bourses familiales amna na ñoo xam ne li ñu jot bourse amna na ñoo xam ne nañ pendant 40 ans mosuñu ko am pension seen 40 ans yu liguey mayu len won pension 25 cinq mille yi Macky Sall di jox par euh, trimestre loolu ku ko def te pétrole am ak gazam génnagul mu war ci am ay euh, yu ci jóge defe naa Sénégal yi won nañ réfléchir xamné ne bobu président Macky Sall am bu mom mo moo joxoñ kenn ko xamné néna nee na ko yeggali dina ko ci gunge té bu ci gunge xam nga fuñu ñu jëm fa fi demoon ak libbi parce que commencé nako ci euh, logement social yi logement social yi actuellement c'est payant mais dañ ko wàññi pour mun ñep mun accéder au logement muy wa bitim rew moy néew ci doole yi fi ne donc lolu bu amé leer na ma leer Yalla ni pétrole bee gaz bi bu ñëwé toujours mom lay wax nit ñi Macky Sall ci dundu gi la koy xëpp parce que yéene googu la am ci Sénégal pour sénégalais yi nek ay nit ñoo xamné ku ne day mënal bopam. ma bamtu wat ko ni ko commencé moy le Sénégal pour tous nee naa au fin fond du Sénégal mom mu ngi koy wax ñi nga xam ne ñoo ñiy wax mooy ñi nga xam ne duñ voyagé mais ñi nga xam dañuy voyagé dugg ci biir dëkk bi ñoom ñi campagne sax danoo sant euh, danoo war a sant président Macky Sall ndax Ziguinchor ba ñuy dem combien de temps nga daan def avant pour yegg Ziguinchor combien de temps munoon nga fanaan ci yenn bi ci yoon bi fanaan ci yoon bi ba la lendemain nga doog a yegg parce que da ngay dem fekk bag bi wàcc na wala bac amul nga war a toog di xaar mais léegi pont moo la yóbbu directement bi nga yegg moom mii dëkk Kolda ay seeju ay fune ne fu fa amul yoon bu nu goudronné am na piste ñi nga xam ne ba Senghor nekkee ci Sénégal mosu ñoo gis pepp ndox bu génn ci robinet malgré que loolu am na kii yu kiiwul parce que dinaa ci profité pour jooy pour sama commune Fadiouth sonn nañu ci ñàkkum ndox mi mais nag amoon nañ ko depuis xëy na li ñuy defar moo tax ñëwul mais sonn nañ ci mais nag dafa am loo xam ne ñooñu mosuñu am na ñoo xam ne électricité mosuñ ko gis ci àddina loolu yëpp ci président Macky Sall la loolu yëpp jeexee justice pour tous ñëpp nañu yem ci li nga xam ne moom lay Sénégal di kii donc dama yaakaar ni moom bu dee bennoo déggoo nañu li may wax nag wax naa ko sànq man la engagé parce que sama parti génneegul communiqué pour wax mais nag tàggu naa sama papa sama président je l'ai appelé au téléphone pour ne ko ngi ñëw fii mu jox ma sa bénédiction mais dama xam ni bu nu déggoo am suñu candidat président Macky Sall day continuer ci lii lancé bii mu ne ndax li li mu fi liggéey wóor na ñëpp

lu ci nekk mooy li ngay def ci social nit nekk na milliardaire mënu ko def parce que politicienne boo xam ne politicienne la tu ñëwoo pour sa bopp am na ñoo xam ne nag dañu ñëw en politique pour lu ñu am mooy ñi nga xam ne fu tooy ñu tag mais bu dee da nga ñëw rek pour am gëm-gëm munoo ci am lu bëri gis nga keroog ba ñu dajalee ñun ñi nga xam ne on était des euh, ay jigéen yoo xam ne am nañ ndombol tànk nee naa leen li maire di wax naan kaala bi ci ndigg ci ci ndigali ci bopp ci bopp bi ci ndigali la jëkkee moy hmm. fonction maire ak adjointe au maire parce que nit ñi dañ lay défé lu ne surtout les adjoints dañ lay défé ni am nga lu ne dama leen doon wax ni rusuma ko wax adjoint au maire xam nga lan mo doon indemnité am temps yi ma fa nekkee 59600 tax ma bayyi sama kër Dakar dem nekk Fadiouth parce que man ma jël mandat ña fa donc bu ñuy wax politiciens yi nee naa leen am na social bu ci ne loo xam ne yàlla bëgg na ko ndax li ngay def ci social mënoon nga milliardaire te doo ko def te politique bi rek moo la koy may li nu yenu ci suñu bopp yi ñoo mënul ma bàyyi même ku ci nekk directrice am na loo xam ne munoo ko ndax munoo nekk ci mairie nit ñëw ak euh, soxlaam nga dàq ko ne ko loolu du am li may ñaan xale yi daal mooy nañu ànd ak tekk ak tey troisième daal lañ doon xeex te boroom mosu ta wax ndax dina def wala du def ba wax jox tey wax na Bénin du def troisième mandat ci pas des choses de la république parce que du problème troisième mandat problème c'est personnel nan ko madame si docteur c'est des problèmes des problèmes personnels mm. donc jeunesse il faut ñu conscient ci ndax fa demul la fa ko te mu am la plainte kooku boo ko tuddul woon boo tuddul woon turam lu toog mais li ñu wax rek moo ci ne inexpérience bokk na ci parce que boo mësul a def politique bugg a ñëw dans le champ politique bugg a nii yow yaay yàlla bu ndaw nit ñi xale yi jàppale ci loolu doo def dara lu di di leen woo di leen wax ni nangam ak nangam vraiment am na yoo xam ne expérience boobu munoo ko am expérience yi def ci bokk te ñun parti politique ñu bokk surtout nu li nga xam ne ci parti social lañ juddoo ndax Moustapha Niass était socialiste ñoo créé AFP ñu daaneel foofu. waaw am na éducation boo xam ne yi comme ni ko Aminata waxee duñ ko def on le fera pas parce que du lum ñu jàngal donc xale yi il faut ñu jël conscience ci loolu. bàyyi lu ñuy wax naan kii màggat la ci sujet xale yi te jeexaloon nañ ko. waaw moo tax mu bëgg ci docteur Nafissatou Diouf. d' accord ñu jeexal perspective yi. <laughs> parce que question mandat bi effectivement mën nañ jàpp ne léegi régler nañ ko. président nee na fii ak muy jébbal lenke yi avril 2024 inshallah, allah lépp lu war ci moom ci président de la république dina ko taxawee. On na ci discoursam ne nañ organiser ay une yu libre transparente répété waat na ko tey conseil des ministres kon tey challenge bi lan lay doon docteur Nafissatou tey challenge bi euh, dama koy euh, arrêté ci ñetti pàcc benn bi euh, sama doom baay wax na ko ni ñu commencé dialogue bi ñu continuer ko may tontu sama sœur Aminata Diallo di ko wax ne effectivement euh, Monsieur le Président de la République, son Excellence, Monsieur Macky Sall, euh, n'a jamais parlé de troisième candidature, n'a jamais parlé d'un autre mandat qu'il allait faire après celui de 2019. Mais surtout, dit wax ne euh, ndegem dañuy bëgg ay élections libre transparente démocratique bon aussi nous avons ba lépp décisions décision de justice bu daanu ci kaw sénégalais ak ku mu ci doon ñu appliquer ko parce que damay dégg depuis le début de l'émission quand même ñu naan oui ne diw bokk loolu aussi je pense que bu ñu bëggee euh, tolloole bi soxna Aminata Diallo doon wax euh, tolloole bi aussi il faut que ñu euh, maanaam aussi mën a appliquer la justice loolu dafa am solo beneen bi mooy effectivement le slogan bi nga xamante ne ni ña ko doon agité rek ñoo ko inventé may fàttali ne tamit ne bu ñu defee vaar am na sax ñoo xamante ne nii dañ ko doon ŋàññ mais ñoom ñoo doon cautionné ne président mën na présenté waa 2024 donc ñooñu ils se sont dédits waaye ndey mbil ji damay faral di wax naan kuy ñaanal sa doom na ko nekkulee xaar yàlla na xaddi ña doon xaar président je pense que xaddi nañu mbas na leen parce que moom dafa mës a euh, maanaam mësul jéggi wala boog mësul jàdd yoonam donc li nga xamante ne moom mooy perspective yi mooy élection yi euh, ki nga xam ne moom arbitre bi président Macky Sall arbitre bu mat arbitre la dañ ko bàyyi nag mu doxal parce que comme nous mu ko c'est le président de la République li sama papa Mansour Mbaye di faral di wax c'est le gardien de la Constitution te si dialogue bobu sax nga may ma ci rek ma wax ne on a une longue tradition de dialogue de président Macky Sall bi dialogue bi daf ko institutionnaliser sax boo xoolee que ça soit le CESE que ça soit le HCCT que ça soit la Cour suprême que ça soit le Conseil constitutionnel ñoo ñëpp ce sont des organes yoo xamante ni nii maanaam ay avis motivé la ñii indi ni dañ leen di consulter ci li nga xamante ni moom mooy seen sañ-sañ mooy mooy seen xam-xam donc dama né euh, damay dama naan ken du ne président encore une fois musul jàdd yonam benen bi soxna aram moy damay ñëw ba tey ci troisième candidature bi xam nga fi mu toll nii lan la ñuy xaar foofu rek mooy neex programme yi ndax li ma metti sànq dafa doon wax ne euh, ñi ñoom ñoom ay premier adjoint la ñu woon et cetera indemnité cinquante-neuf mille ñun ay conseils municipaux la ñu dërëm yoruñu ko te nag dañu yor ay militants yor ay mouvement yor ay jigéen di leen financé damay faral di wax sama morom directeur généraux yi nga xam ne dama bokk ak ñoom benn kuréel ci APR may leen ñun dañu war a saam suñu salaire yi di jàppale askan wi parce que président mi nga xamné heure bu ak ñun daf ñu naan da ngeen war a ñi nga xamante ni tay ñom ñoy njabot gi ndax mënu ma fal deux directeurs généraux mënu ma fal deux ministres il a raison benen bi moy xam nga lutax lim doon wax sànq mu interpellé ma que ça soit les élections locales soxna que ça soit les dernières législatives lan moo nekkoon programme de campagne troisième candidature laminé mais ay doomu adama yo xamné defuñu waxuñu ci donc xam nga lan programme yi koy déglu té on est à quelques mois seulement des élections may euh, ci perspective di un peu le journal de la campagne parce que dañ commencé may wax bu <laughs> ko <laughs> may wax may wax président ah, ah kim ñi tànnal ñun kooku mooy dool suñu candidat may ñaax rek tout la coalition benn Bokk Yaakaar rawatina samay ñoñi APR nañu nekk en rang bu ñu bëgg dara lu dul Sénégal kum ñu tànnal nañu nekk ci ginnaawam liggéeyal ko ba nag au soir du 24 février du 25 février 2024 ñu ne coalition benn Bokk Yaakaar moom

voilà d'abord damay euh, rafetlu euh, travaux yi nga xamanteni mo andi li toujours euh, dialogue par rapport ak sunu candidat Karim Meïssa Wade li nga un discours au parti démocratique sénégalais la révision du procès de Karim Meïssa Wade nga xamanteni le Sénégal dafa ratifier ay convention sur les juridictions internationales qui mu jox Karim droit à l'homme. Nous demandons de réviser le procès de Karim C'est dialogue bi may opportunité pour nous. loin euh, de ce que disent les autres euh, de l'autre côté ou boor nous, ñun du caprice du kéemaan mais c'est notre droit le président Macky Sall si dialogue est mu woote woon tey euh, communiqué bi ñu génne sànq ñu daal permettre président Karim Meïssa mu participer ci élection 2024 yi di féliciter ñëpp euh, mais aussi di euh, di tendre la main à toute la famille libérale de tous bords parce que nous sommes des libéraux suñu euh, candidat Karim Meïssa Wade inshallah mu ngi wax ci communiqué bu mujj bi sax di féliciter Macky Sall de gannaaw ba mu ñaaw loolu fi am parti démocratique sénégalais génn communiqué keroog di féliciter Macky Sall mais aussi ci vous communiquez nous ñuy ñaan képp kuy libéral ñu koy tendre la main pour mu ñëw ànd ak ñun bu ko défé ñu élection 2024 perspective parce que élection apaisée transparente et libre la ñuy wax ci perspective yi am na dialogue euh, dialogue bi waxtaan nañ ko mais amna yo xamanteni continuité par rapport ak le code électoral mais par rapport au fichier par rapport à que que xamante l'organisation de l'élection de notre parti de mës se demander une personnalité neutre pour organiser les élections c'est-à-dire un ministre qui a organisé organiser la présidentielle le président Macky Sall en tant que chef d'État dina de jël rôle pour organiser les élections de façon euh, transparente mais libre aussi mais au-delà du chef de l'État la personne ou bien l'autorité bi nga chargée des élections nous demander une personnalité neutre pour organiser l'élection. Nous non ni constitution mais aussi ni ko démocratie Je salue aussi ce que moi moi moom am par rapport à euh, la reconfiguration euh, de la carte ou bien la euh, reconfiguration de la donne par euh, après le président Macky Sall waxé ba pare yëfi changé na comme yëfi changé na nak dañuy wo sénégalais ñu interroger sen intelligence ta xamni Sénégal bi ni da nek na pays bo xamantene mature na sur tous les plans ki nga xamantene mom lañ fi wara a mu nek nit ku responsable nit ku mature nit ku am éducation mais nit ko xamantene ne am na sens de patriotisme élevé mais mu nek nit ko xamante amna sens de responsabilité élevé mais mu nek nit ko xamante posture républicaine la am ta kooku yaakaaruñ ci kenn muy suñu président Abdoul Karim Meïssa Wade may wo sama sœur yi nga xamante famille libérale gannaaw bi président gannaaw bi président Abdoulaye <laughs> gannaaw <laughs> gannaaw bi président Abdoulaye Wade demandé won que la famille libérale mu ngi ñaan ñu gouverner 50 ans et j'ose espérer que c'est bien possible te loolu nak yaakaar naa di ngeen ba suñu président Macky Sall gouverneur ba ni moom pare na ah di ngeen ñoo jàppale sen rak seen frère Karim Meïssa Wade da ngeen jël temps d'antenne journal de la campagne <laughs> mouvement Fal Khalifa moom it mu ngi tok xamna fa la jëm moom wa ci perspective yi perspective yi euh, maa ngi doon wax révision constitution bi révision euh, également code électoral euh, euh communiqué conseil des ministres bi fësal né adopté nañ ko en conseil des ministres amna naa dina assemblée nationale loolu lan la di junj ci ay perspectives yéen Wa, fal Khalifa Sall. wa euh, aram amna solo solo euh, gis nañ ne mu ngi neex <laughs> daño dem dialogue national ñu teunk def document ni li moy conclusion dialogue bi te ay maga fa tok mm. ñu am expérience ñoo fa tok xam nga président ñas kii xam na ni président Niass sama xarit la mhm. xam nga man Benno Bokk Yaakaar laa nekkoon 2012 mhm. ma dem ba nekk opposante ci biir Benno Bokk Yaakaar waaye terewul gis nga bu ma soxlaa dara du ma ko laaj Benno Bokk Yaakaar dina opposante la damay yëg ba ci président ñas ne ko sama héritage ci sa ngor waxuma yow président Niass de président assemblée nationale waxuma yow dama ne yow yow sama héritage ci Senghor laa bëgg nga jox ma si ma dem jàngi mu dem fayal ma ma dem jàngi kon xam nga loolu yaru école du parti moo koy def yar ci ay mouvement de jeunesse moo koy def parce que dafa am fu ñu jaar dañ ñu jaarale ci ay pépinière de parti ñu war a xam kan mooy parti bi ak kan mooy parti bi ak ku nekk foo koy teg nga boole ci nga jàng nga boole ci ñu yar la loolu dafa am solo te loolu la ñu Pape Babacar Mbaye jàngaloon loolu la ñu Khalifa Sall jàngal kon ci perspective yi ñu dem président mu ngi commencé di wane te xam naa ne jàpp naa ne du def leneen lu dul lii mu commencé ndax ku ne defuma troisième mandat ba àdduna bi yëpp magnifié la jàpp naa ne du fi def leneen ci li ma xalaat kon nag mu ngi continuer kon conclusion yooyu ngal la mag ñooñu nga xam ne ni ñoom la déglu ak moom conscience am xool ne moom mag la te mën na am leneen mun na am leneen loolu yëpp wund ko ba mu ne bokkuma troisième mandat jàpp naa ne conclusion yooyu dana seet ci loolu yëpp ba ñu tëral ko benn benn wax naa ne justice day am justice kenn bañu ko mais xam nga lu ñu bañ kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu la ñu wax loolu aussi nañ ko ci boole parce que wax na ko document bi wax na ko waxuñu ne diw na wax ne du ma dem wala leneen non non man joxewuma fi tur waxuma diw waxuma diw déedéet dama ne bu mu am kumba am ndey bu mu am kumba amul ndey nañu valoriser ñi daan nekk ci mbirum yarum xale yi ak ña yor xale yi nañ leen jox lee moyens nañu concentrer mbir mi pont yi rafet na lépp mais nañ ko concentrer sur l'humain loolu la Khalifa Sall teg né nañu dellu sur l'humain nañu investir ci sunu ay dom ndax ëllëg ñoo ñuy wootu ñun ñi buñ ñu yaroon yenn yar yi kon ñu ngi tok fi tay di reyante waaye dafa am fiñ ñu teg kon liñ ñu jox ñun tamé nañ ko delloo suñu njabot pour ëllëgu Sénégal mu gëna neex nañu gëna valoriser lepp lo xamé valeur la nañ ko defaraat ñun loolu lañu wax dañu ne pétrole bi nañ ko delloo ci nit ñi ba nga xam ne ni ëllëg courant dina gën a wàññeeku ndox bi dana gën a wàññi ñu ne kon suñu pétrole bi delloon nañ ko ca nit ña comme saa xale yi li ñuy gis ci pauvreté bi mu wàññeeku dund bi ni mu chéré mu wàññeeku parce que en Afrique na nañu waxante dëgg Afrique de l'Ouest ñun ñoo fi gën a cher la de waaw ñoo fi gën a cher la boo demee Paris sax da ngay xool ne ñun suñu dund moo gën a neex moo gën a metti mais xam nga lu tax mu metti dañ naan non dañuy développé wu <laughs> dañuy développé wu mais nañ ko adossé ci sunu ay ressources minières maa ngi dégg benn grand journaliste di wax ne benn pays bu nekk fii mooy premier moo gën a bari or moo gën a bari lii amul tali mm-hmm. est-ce que dégg nga li ma wax mais ñun am nañu lii am nañu lii waaye doyul nañ ko gën a yokk mais nañu gën a dellu ci nit ñi nañu gën a éduquer nit ñi ñun loolu la ñu wax nañ dellu suñu suuf sii mm-hmm. gis nga suñu suuf sii mm-hmm. nga xam ne ku mu neex nga jël ku mu neex nga jox ku la neex gis nga lii bu continuer nii gis nga injustice yi ngi seen ci mbedd mi

bu ñu bu ñu bokk fenn ñi yow kenn du la daan waaye yow bokkoo fa yow ñu lay daan ñun man loolu laa wax kon loolu yëpp hmm. nañ ko ci boole ci perspective yi du yomb hmm. du yomb mais politique yi aussi nañu xam ne ne ñoom moomuñu Sénégal ñun ñii hmm. nañu xam ne suñu responsabilité dafa engagé suñu ay xale nañ leen gën a encadré

xam na ni dialogue dialogue rek am solo aram dégg nañ dialogue rek a am solo dégg nañ ci lu ne waaye wallaahi dialogue lu ko lu ko jar lu ne jar na ko dégg nañ loolu mu ngi nii troisième mandat kenn waxatu ko te mu ngi nii ñu ngi naan nañ changer la a avec le conseil des ministres ñu jeexal ak jéegi ku xam nag na nga xam ne dialogue rek moo am solo te consensus nañ ko topp te consensus mooy indi lépp kon nag yal na yàlla gën a def mu gën a continuer nii incha allah mu gën neex ñu jeexal ak jéegi boo ma police lañ jëm dama lay dagg une minute moo ñu dese <laughs> loolu moom maa ngi déglu police lañ ñu dese <laughs> léegi jéegi wax nañ ci troisième mandat wax nañ ci dialogue lan moo des man campagne ma bul campagne man amaguma candidat man président Macky Sall moo doon sama candidat jusqu'au président waxaguma dara du ma xar nag duma ma benn wi wi ceddo dëgg la boo xam nag diine nekk taalibe Cheikh sama leader dama ka tànn mu doyoon ma en temps mu nekk le président Ablaye Wade comme je l'ai dit mu pare ma tànn le président Macky Sall mu woo ma ma toog ak moom dans son bureau Aminata na dëgg léegi dialogue man xam la naax wax jàmm ku am lenn te amoo jàmm jàmm ko gën lu waaye am leneen demal président Macky Sall pour man man et ça m'engage il n'a subi aucune pression aucune pression pour dire qu'il ne sera pas candidat ça c'est ma conviction très profonde comme fait ça toi. parce que dafa qu'il nit ki doxal nga ko doxal nga doxal ngay di def ndax d'abord divin avant d'être humain mm-hmm. y def mon président Macky Sall jël bigam la nak nga a nga du lundi au samedi waxuma vendredi Il y say dimanche de 8h, ndax mo fay tout. jusqu'à 4h du matin 3h du matin ay audience suñu bokk ba gis tankam mi du na suñu koy def un don de soi dama ne ku ni nguur dafa neex kese neex kese neex kese dafay fekk yow toogoo ci chaise boobu. Mm. Mm-hmm. am na ñoo xam ne nee naa leen bu ñu duggee avenir um premier jour bu ñu fa trois mois dañu naan pocca daw ni fan laa jëm fan laay làqatu ji yàlla lay tànn ni kii laay jël jël sama yaa Karim jox ko ko jël ni ko dagaj quelque chose mu mën a doxal rawatina dëkk bu mel ni Sénégal gii. dagguma damay dugal laaj. aram yang meton, may damay dugal laaj taguma la damay dugal laaj. ñi mel na yow jegi nga xamne ne président de la république mo nekkon sen candidat tay mu ne bokul ba tay nga na yow amago candidat mhm. naka ngeen di def. pat ya ma sama kawlal la wax di leer nañ j'avais pas envie de parler bëgguma wax ndax waxuma guma wax ndax gisuma lu ma xam damay wax deug mm. duma bëgg j'aime yu bari ni bëgg jëm yu bari ba tax ma wax luma xamul. dafa dogal je suis très très indépendante Il ma on a des valeurs Il ma président Macky Sall rappelé muy ngor muy fulla muy fayda muy jom su ma la nee suba laay dee président Macky Sall débat sa déclaration La dama koy Sénégal parce que me tire, parce que ma petite personne là non bi jàng jotee dañoo jàng uh-huh. tek jot ñu tek uh-huh. sey jot ñu sey jur jot ñu jur ba ñu yalla yàlla ba xale am ñu ko waaxalul ñu continuer dem falu jot ñu falu dañuy wàcc keneen faluwaat uh-huh. mu aduna di dem xaali dina fii xaar abadan talhatil haq bi comme ni ko Cheikh waxee ci jawatul kamal dama ni président Macky Sall lu tax may rangoñ wadd parce que daf ma fatali man fan la bok mu fatali ñu ñun Sénégal fan lañu bok mu fatali ñu les hommes d'état les hommes hommes politiques lan lañu wara mëna am en vue toujours dama ni man awuma candidat man xam nga kan laa am kama amone comme candidat mom lay wax lam defal suma dëkk bi ak fam ñu wo fam ñu jële fam ñu fekk ak fam ñu naroon yob mom sax nee l'heure du bilan n'a pas encore sonné kon mën nañ ko yemalé fofu du ma ko <laughs> la justice pour tout, tous mhm. lool le président Macky Sall woté lool motax dans l'histoire politique de ce pays mosoo gis politique policier bo xamné dafa nek dans une manifestation def ay affaire ñu paré japp ko juge ko tëj ko nañ ko nangu de 1960 à nos jours c'est avec le président Macky Sall c'est avec le président Macky Sall le nit que président de parti que député nekk intouchable ba ñu ñu yaakaaroon kenn du ko laal justice def liggéeyam taxaw travail. ba ñu condamné ko dañu waxoon du fi am. Dernier na Dernier jàmmuma fa. jeex émission bi dama veux bëgg wax ne. Mhm, ñu daaneel foofu le capital humain est au cœur. Mhm. de la politique du président Macky Sall et pourtant qui est un libéral. Ah sometimes ñun sax dañ koy wax ni antécédent communiste socialiste moko top topp ba tey parce que il y a il a une politique sociale bo xamante ni indéniable la bourse sociale mu ñëw tek buñ dugg ci bilan bi non je veux te dire buñ dugg ci bilan bi mais bilan bi duñ ci dugg lance un appel ci am je lance un appel ah, je demande à la tenue et retenue des hommes politiques mana mana kese dafa neex yalla ni meun sax

li ko war biir Sénégal pour man wàccoo ak ñun le conseil je suis juriste nak maintenant damay soumi militantisme bi sol mbubbu juriste bi yoon ku mu dal sa kaw dafa am fu mu ko tek du man dong du man dong maa lekk loolu du la tax do jakarlo ak yoon wala du man kese déedéet pour man dafay am évolution bu ñuy soxla am na ñoo xamante ne kenn daaw leen punir léegi ñu ngi leen di punir am na ñoo xam ñemewuñu leen won xol te léegi ñu ngi leen di xol c'est ça l'évolution d'une démocratie et d'une justice ñun ba foofu dañ fay naw président Macky Sall di ko xool bët ci biir bët parce que fii kenn gënu fi kenn c'est un choix le militantisme

dama bëgg ñu xam ni du ay noon la police la gendarmerie les militaires duñu ñu sunu ay noon bu ñuy tëdd suba teel bay nelaw bay yandoor parce que ñoom ñoo nekk fii si biir dëkk bi àdduna nag dafa metti depuis Covid ba tey foo laat duut ma ngay metti France boo demee ñeme def le plein Espagne boo demee doo dugg ci biir magasin di jënd plus de 15 litres d'huile gàcce nga laama président Macky Sall jërëjëf Diop Fall APR gërëm gërëm honorable Aminata Diallo ñu ngi lay gërëm bu baax bu ñu leen toppee émission bi du jeex di gërëm bu baax Souta Seck bu PDS. gërëm na à l'application des décisions de justice. dinañ ci ñëwaat parce que aussi. plateau bi du euh, jeex euh, aram nga baal ma fofu tuuti rek. xam nga def nañ deux heures te dafa am exception jaatu plateau bi mais dafa jeex jàpp leen ñu rek waa journal ñu ngi xaar dañu débordé. <laughs> ma remercier docteur Nafissatou Diouf remercier bu baax Louise Coco Diouf. remercier caatu réew mi. il faut mu xam euh, ndaw ah, remercier leen bu baax yéen téléspectateurs téléspectateurs yi soxna yi leen dalaloon di waxtaanee discours président de la république di leen gërëm bu baax ne lañ doyaluñ waaye dinañ am yeneen jotaay incha allah di leen gërëm bu baax téléspectateurs yi di gërëm waa régie ma tàggul leen yéen ñëpp gërëm ngeen ñëpp sant ngeen ñëpp jërë ngeen jëf